sëñ Saliou Mbacke ci buntu kër Balla Sylla bi nga xam ne taaliba sadiq la ci yoonu Mouride. ah di fi dajale xar yi nga xam ne mooy xar yi Serigne yi nga xam ne at mu nekk kuréelu jeewal ñoo koy dajale di ko yóbbu di ko jëbbal ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba te tey ren ji ah, at yi nekk sëñ Cheikh Saliou Mbacke Khadimou Rassoul ah ñu am ci ànd ceeg mbégte te di ci ñaax suñu mbokki taalibe bi yëpp kenn ku nekk taxaw taxawaay boo xam ne. da mel ne da ngaa warloo Serigne Touba at mu nekk nga wutal ko am tabaski léegi nag kuréel bu nekk ci Louga ak ci département waru gar la ci yow nit ñi saayu faxe euh, at mu nekk kenn ku ne wut ar moo xam ne dana mucc jox ko Serigne Touba mi nga xam ne moo liggéeyal jaam ñi ba jaam ñi war a tey euh, añ tey ji ak boo liggéey tam ndax Serigne Touba li liggéey war warloo war naa tax mais murit bu nekk mu bu nekk jox ko jukkal bu tabaski ñëwee ñu def nii dajale xar yi jox ko suur tam xarit ñëw ñu wut dugub ak ay jëfandikaay yóbbu bu dee suukaru koor noonu bu dee warteeku yi nga xam ne mooy am ci wàllu jullit lépp ci xew-xew diine yi warugar la ci kenn ku nekk def sa man-man def loo mën ak ñu ñaan rek kenn bañ cee dàcc kuréel bu nekk na laxasaayu te xam ne liggéey bi day liggéey bu nangu la moom mas naa wax daaw ca Touba bi ñu wàccee xar yi ne lii la liggéey la boo xam ne waa Joal ñoo ko defal Serigne Touba bëgg ne wu Serigne Saliou ba ma liggéey bii ngeen def de ku ci bokk ku ci bokkul sa warul a dal ma ne ko ah ñu nekk Louga dey ak tund Louga day moom ku ci bokkul sa sa sa xel warul a dal mu ne ma waxuma Louga ak Louga rek fépp foo xam ne ci Sénégal la ku fi nekk war ngaa ku roy ci waa jeewal war ngaa dugg ci liggéeyu jeewal bi maanaam li nag bi ngeen ko tàmbalee dama la doon laaj sëriñ bi maanaam bi ngeen ko tàmbalee ak léegi euh, ñaata at la toll ak euh, maanaam yokkute la am wala am na wàññite wala nan nga ko gisee daal waaw ko tàmbalee léegi bañ ko tàmbalee léegi ndaxam sax euh, mooy diggante bi nga xamante ne ñu ngi di yóbbu màgg bi jeewal jeew ca fële ci jeewal di ko fa màggale lañ tàmbali bi sëñ sa sëñ Codé mi nga xam ne moom nekk sëñ Saliou bu ko sëñ waxee ne yéen ñu ngeen di ñuy liggéeyloo ngeen boobu moom wax ko liggéey bi nu demee waaye ba mu ñëwee moom liggéey boobu moo ko firee liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dajale saa saa saa soo xamee ne xeexu diini am na muy suukar muy koor ñu suukar war yóbbu ay saaku suukar bu dee tabaski ñëw na ñu wut ay xarit tabaski ci kuréel yi yóbbul ko bu dee tam xarit ñu def noonu bu dee gàmmu ñu def noonu bu dee màggalu Tuubaa ñu def noonu kon bañ ko defee ba léegi at mu nekk gàcceel na mi nga xam ne wees woon nañ kon nag léegi maanaam daal day gën a yokk waaye jëmul gannaaw day yokk léegi nag xar yi damay laaj xar maanaam ni ngeen ko defee ndax xam nga dëkk bi da ngeen koo xaaj ay kuréel mu nekk nang fukki kuréel ak nangam waaw yooyu nag may laaj ba xam kuréel bu ci nekk maanaam ay pàcc la yoo xam ne da ngeen koo xar wàllu dëkk bi léegi nag maa laaj kuréel bu ci nekk dafay joxe menn xar xar xar moomu nag ci biir taalibe kenn na ko fay joxe wala ñaar a koy joxe wala nan lay demee daal joxe waaw kuréel dëkk bi ci boppam ci Louga juróom lañ ko euh, lañ ko lañ ko séddale ña fenn ku ci nekk ña fa féete ñoom ñoo war a saytu am xar moo xam ne ñoo koy liggéeyal Serigne Touba jox ko kenn ci kuréel mu koy saytu di ko xont ñu koy dimbali ca xont ba noonu lañ ko bëggee nag. ah li mu ñaata kuréel la fi ne fukki ak euh, maanaam àll bi nag moom juróom-ñetti fukki kuréel ak juróom ñoo fa nekk. kon mel ne kon téeméer rek xare nangam daal war naa ñëw. moom la ñuy séenu te warugar la kenn ku nekk def loolu. am na si nag kuréel yoo xam ne sax ci Louga ñaari xar lañu indi. bu ci euh, mel ne sant euh, Serigne Touba Mbacke ñaari xar la indi ren. am na si kuréelu àll bi yoo xam ne daaw dañoo tardé woon te xarum tabaski mu mel ne kër Moussa Kébé waaye ren ñaari xar la indi mu dafa fay mu daaw ak indi mu ren waaw ah, ok kon nag kon ñu jàll ci xar yi seen xar yi noonu demee waaw xar yi moom mën nga ñëw ñu tàmbalee ci ndigal ndax mooy xam ne moo nekkoon sama kër euh, ah, mooy xam ne ndigal ñoo ko indi mbaa du daal aje demal bas waaw mbaa kanam boobu jaax waaw ak ban yii xar nag moom mooy tam waa Tuubeen ñoo ko indi waa département kuréel bi wax Tuubeen ay taa def ñoo ñoo indi xar mi ñëw. ku ma ku moom tuuti. wàccu biir wàccu biir waaw jàll. étiquette bi. na jàkkaarloog man étiquette bi. takku ba sab takku ba sab takku ba sab. takku ba sab waaw jël naa jël na takku bi sab takku bi sab ah. ana ana ma jëm. Ah. wane xëccal moomu baa njëm bii maanaam. ko moom bi. étiquette am. Daaru Salaam xéwal la. Daaru Salaam xéwal xéwal waaw. tourné léegi étiquette wut eh fi. Eh, waaw ah, baax baax. Daaru Salaam xéwal demal ci sa gannaaw. lii voilà. dama la aw ñoom seeni i borom nekkunu fi daal. toppal ma jël mi ci des toppal. Euh, kooku mooy sëñ Saliou mi nga xam ne moom la ñuy yuti xar ca Touba. Euh, ba tax na mbir mi moom noonu rek la demee ah coupure bi nga xam ne moo ci amoon moo tax ñu def ci li ci diggante bi. voilà. waaw sant nañu ko. rajo bii. na ticket bi yëkkati. na ticket eh, kër kër Maram. waaw voilà. bii amul ticket. lii mooy ban. sant Sëriñ Tuuba. Baye Dame anamu. nii nii kaay sant Sëriñ Tuuba. xanaa mbind bi daa léew. jëlal ko ah nag Sëriñ Tuuba boobu jëlal ñu ko sax. lii Pastef. Pastef a ngi nii Baye Dame ngi nii. Ah. te jàppale ma ah, nag. <laughs> ñëwal sa xol gaane bi mu xool. dama ne na xar bi gën a baax. Badam waxal dara bokk mooy tàllal loxo bi baadaam waxal dara bokk gën fi rek mooy tàllal loxo kenn du ko mën ah waaw maa fi mën cëkkaw rek baadaam cëkkaw waaw ba sëbi nii topp leen si sa nga xam bii mooy ban Abdoulaye Abdoulaye ah Abdoulaye Abdoulaye ah, après nga dem fële nag fiyele Abdoulaye kër daam waaw kër daam wala nga ñëw nii voilà waaw boobu saye पहले या कले ले ले पर बम कैमरा जो नो किसी में बोल रे रेटिंग इन बिंदु रेटे हां हां बोल बेटा हार में बोल बेटा हार नो नो नो खाली गिर लगे लगे कार सब सब सब वाला लेगे मालूम किया वाजल ना boobu jël naa ko jël naa ko waaw bii bii bii kana tournel ma boobu ah jëloon naa ko jël ah ci benn jël naa ko waaw jël naa ko asalaamaaleykum ah, kon kii mooy sëñ Saliou Mbacke mi nga xam ne yàlla dogal na moo fi nekkal Serigne Touba ah tey ñu fas yéene na mooy fukki fan ci weeru avril 1997 ci ndigalal serigne Papa ko delo mi nga xane moko nekkal ci diwanu lugu sant serigne Touba wala wa génn. yéen. jëloon nga benn bële. ah waaw jëloon naa ko. waaw jël naa ko waaw. jël naa ko bële jël naa ko. ah bii jël naa ko waaw. waaw jël naa ko. bële bële jël naa ko. jaay. léegi bi ñu jël naa ko bu ma waree arrêté rek nee ma arrêté. jaay. tourné étiquette bi rek. Eh, après nga ñëw fee sànni jaay ci laa dëkk. waaw waaw baax eh, eh, na. ralo. waaw defar ngeen ko pare. nan dox sama diggante kii bi ñii ñii kii sëñ bi paa bi. war a war. waaw na étiquette de waaw maa ngi koy liir taxawal sañcu sañcu jaaj ji waaw liir naa batay ñu delo san serigne touba bu baax rek ah di ñaanal serigne Papa ko delo mi nga xamne mo fi teewal serigne Saliou Mbacke mu yagg fi te it ndigalum limu ñuy digal ah di ñu yomb ñu diko man la bu yalla def benn mbokkum taalibe jaar ci yàlla na yàlla def ñëpp teggi tere yi te euh, jëm ci yoonu ihdina siraatal mustaqim ci ndigalal suñ papa Codé ñoo ngi sant ñëpp di xam ne dog-dog bee tax ñu def ci lii. yal na ngeen am wér. amiin yal na leen yàlla defal jàmm. amiin sëñ Touba tibal leen ci jàmmam. amiin ak ci turaam. amiin yal na leen sëñ Touba tibal. ci ci ban xalifa nga tàmbalee siyaare. ci ban xalifa. waaw nga tàmbalee siyaare. xanaa Cheikh Mbacke. Cheikh Mbacke. waaw waaw waaw waaw nga dëgg waaw nga dëgg da da nga daan gàmm ji njaareem kon. waaw njaareem daan

yaa ngi yaakaar sëñ Tuubaa àdduna ak alaaxira waaw seede seede ko ci bande bi nag seede ko ci bande bi waaw. No. الرحمن الاسم يلا ويا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا شيم اغفر ذنوبنا فقبل منا وهمنا وارجع وسانا وانزلنا يا ربنا خير اليوم مكان ما نقاو من شر نخم وهب لنا الادب والمزايا وكبنا الابات ورزايا وهب لنا رسالة وكمان الغزال في لوحاتي يا بر يا لطيف ويا معافي يا من له امر الورى يا انزل جواك مكان داهي ولا دامنا بابتلاهي واجري له مكان بري واجري خير مكان الشر واجري مكان الجهل واجري جود مكان البخل واجري مكان البخيل كان الكفرين وفي جميع المسلمين عاجلا سماخيم غفن سناجلا وناجي وابي والتوبيم ولا تواخذوني كسنديم فإن وإن ذوك يا أهل لغولة الذي كوبك أهل وإن مبدان لا تقدروا هلا ملائكة للأجر يشروا قلوبهم لذات من أبدا الى لازمك من هنا إلى خدم لكن ما تلد الجواري أولاهما لأخبى الخبائه فلا تواخذهم بما لا ينفذهم ولو ما بالذي لا ينفع يلا ويا مغالب القلوب خالي قلوبنا واغرنا بهم كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين ترى لنا خلاف نكبة ترى واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات سبب غدا واجعل جميع المسلمين في الجنة والمسلمات في الجنة واجعل جميع العلماء الى امرهم وجل جميع المخلصين وجل جميع المخلصين الزايدين وجل جميع الزايدين الناسين وجل جميع الناسين الصادقين وجل جميع الصادقين الفايزين واغرنا يا ربنا بالغنى للمسلمين ابدا ورحمه وجل بنا ودرب وخيرا وقوة بنا سر الليله واغرنا واخرهم له بنا فنسلك وجل جميل قدي ونشهد في رمضان يوم سيد عادي نشهد وجلنا ونعا وعنا شاء شاء بلد دون المنشاء وبعدنا المكان الأخلاقي ما تعبون براسك أخي وجل صغير النعي وأخي الكبير وجل كبير النعي لصغير وجل قلوبنا العهد وجوده بلا عهد آه، ولا ولا ولا ولا ولا تكون من دار ونعمل كل مسلم خما وأولنا يا ربنا من الختام من الممات وخرم يوم الخيام بجاه خير من توالى ورالا وابا المرقوب والأخرالا محمد تبيب الأنوار المبري الأمرال والأسخان وسلم على اسم الاسم السلمة ولمأتي ما بلا المسؤول بدواي وفي المبدأ ولله ما يلتابع له فإلى المسيران يا من يرى المتفى كل الدهر فلا تبالغ من لبش واي والرمال في المصايب والسبا واصل تل الجبال وفلا مثل بنا الوجاي المصطفى سلاح لي ربنا كمصطفى بركة بركة waaw kon nag asalaamaaleykum sëriñ bi. asalaamaaleykum sëriñ bi. ah yow de yaa fi jàng léegi Matlabul Chifa ci tawassuli ilallahi taala bil mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam ah yow nag wax dëgg yàlla dañ lay laaj yow ban kuréel nga jógee ak euh, daal noo gisee mbir mi daal ak sa kontaante ci diggante euh, kuréelu geewal bi ak euh, liggéey bi daal ni mu demee daal noo ci kontaane ak noo tudd نبالغ الله قبل من دليل بالبديل زول قدري نبال خير العو قبل فندرين بأبلغ بدرين لسند كدرين آه. نبال خير العو لقارا كلاس الجارة المكارة على مني ربان بزبينا بأنني قديم المدينة على مني رمان بزبينا بأنني قديم المدينة فراني لو لدي من كل جانب المناكر نواقش اللقيني آه. ma ne sama baay ab tukulóor la bu jógee Fuuta wàcc njaaño njaga ci gannaaw njaga ma jigéen maar bàyyi ma jaara ñan ci moom la jébbulu ndax ba muy ñëw sayxu Omar la daan giñe lu muy tuddee sayxu ba may juddoo la sama baay ji jébbal sëñ Ndiaga ñam saa tourné ko Ndiaga mu mu tuddee ma sëñ Modou Moustapha Mbacke. sëñ Modou Moustapha Mbacke. waaw sëñ Mbacke soxna loolu laa nekk ci gannaaw bi mu ne. jóge jóge Njaañ. jóge Njaañ fi xariyati Njaañ nag Moustapha Diallo waaw talmisu sëñ Cheikh Mbacke fi xariyati Njaañ Ndiaga waaw Mor Talla Niang mii di sama rak. waaw moom laa topp ci gannaawam. moo may yóbbu jeewal mi ngi nii taxaw. waaw moo indi woon xar mi daaw. moo indi moo indi woon xar mi daaw. moom sànni woon ci kàddu daaw sax. ak daaw jéeg. Mor Talla Niang a ngi nii. sëñ Mor Talla Niang kon nag noo liggéey bi. Ah, sant rek ak ngërëm. waaw ah, tubarkal ah yow de at mu ne sa xar day gën a yokk rek. kon gën a yokk rek. gën a yokk rek. est-ce que tubarkal ku gën a yokk daal gën a yokk. est-ce que jërëjëf yokkute gi daal. waaw ah. mu ngi ci yokk rek. est-ce que ku gën a yokk daal gën a yokk rek. est na yàlla doolu ndimbal. amiin ak yërmande. amiin doolu suñu pas-pas. amiin ak suñu yéene. ñëwul seen lu pas-pas ak yéene rek. kon nag sëñ xamante ne kii am nga pas-pas am nga yéene yàlla na eggale fan ko bëgg ak fu mu ko bëgg ci kattanu yàlla ak maga yoon jërëjëf yow xanaa kontaan nga ci liggéey bi ah, ah kontaan naa ah, ah, ah, noo gisee liggéey bi nag. ni ma ko gisee kay. jëm kanam rek. mënante rek ñu laa ko ci. est-ce man sama morom ma la ñu boole. waaye nag ñoo nekkoon numéro nekk. waaw bu déwénee daan nekk. <laughs> est-ce que kon noo gisee liggéey bi yow. liggéey bi yow yaay ban kuréel sax. ah xamatoo ko. ci bande bi laa bëgg ñu def ko nii pour maanaam euh, xaw ko maasale dagg-dagg bi nga xam ne moo ci amoon. ba tax na ñoo ngi gën di ñaanal sëriñ papa ko di lu mu yàgg fi lool ak fanam gudd lool ak mbooloo mi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam yépp ña fi ñépp yàgg ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tanu nu yàgg koo jëf te yàgg koo fekke te li nu bëgg Serigne Touba lépp nu am ko ci moom li mu bëgg ci nun lépp mu am ko ci nun loolu rek laa ci doon sànni Ah Baye Dame asalaamaaleykum Baye Dame. Baye Dame wul wul Galaye. ah asalaamaaleykum Baye ah, yow nag yaay ban ak. Euh, maanaam noo gisee liggéey bi. xam lu ma lay yëgal daan bi xuloo rek. du xuloo rek du ñu xuloo. waaw comme bande bi comme te yow liggéey bi at mu ne nga fekke ko ah léegi liggéey bi at mu ne nga fekke ko damay laaj nag noo ko gisee ma ngi jëm kanam wala noo ko gisee ma ngi jëm kanam alhamdulilah li ma bëgg nag nit ñi di ko li ma bëgg nit ñi di ko wujjee moo wujjee daw jëm sëñ Touba ci ëppale ak gën waaye leneen dellu ku ci wujjee daw jëm sëñ Touba moom la ñuy ñaan yàlla na ko fekke lu bari sar ko bi jërëjëf bàyyi kàpp kon asalaamaaleykum maaleykum salaam yow yaay ban kuréel ak noo gisee liggéey bi man maay kuréelu ndigal waaw waaw ku ne xam nga ku ne ndigal ngay joxe waaw waaw kon nag ñun ñooy kuréelu ndigal waaw yal na yàlla fay yow mi yor caméra bi fay fay ñi fi taxaw ñëpp ci kàttanu Serigne Touba ñun nag nooy joxe ndigal kuy joxe ndigal ku ne ah. yaa war a joxe ndigal kon nag sëñ Papa Codé Lo yàlla na fi yàgg sëñ Saliou Mbacke yàlla lii lépp liggéey ko sëñ Papa Codé Lo ah, moom am na avancement bu baax a baax a baax ndax lii avancement bi mooy daaw 42 la xar ñeent fukki xar ak ñaar la naam ah. ren noo ngi juróom fukki xar ak ñett xar yi jeexaguñu loolu la kon avancement la ñu am yal na yàlla yokk avancement gi dañu jëm Serigne Touba rek gën lu waaye wujjalul Serigne Touba defoo dara wujje jëm Serigne Touba rek gën yal na yàlla wujjaloo jëm Serigne Touba nag wasalaam sëñ bi asalaamaaleykum yow damaa bëggoon nga wax ma sa tur ak ban kuréel nga jógee ak noo gisee liggéey bi man de sëñ Ndam ñang laa tudd waaw dëkk Ngaanaado kuréelum Ngaanaado waaw ah, di la xamal ne nun day nun ay ndaw lan ñi ñuy liggéey loo fa jeewal nun noo koy bay dañ ko commencé ak léegi noog suñuy xale ak suñuy jigéen ak suñuy gone nooy takk suñuy saret duy suñuy bidon bay ko bale ko lu fa takk nu defar ko ba nit ku ñëw ku ñëw man faa toog noonu nañ góor góorlu di sant suñu papa ko loo leen sant yéen mbooloo ñu yéen wàllu ko yéen ñu nu teg liggéey boobee di nu liggéey loo fa jeewal sañ sayliwu jox leen liggéey bi ngeen wëlbatiku sedd nu jeewal nu di ko bay bu waa Louga ñu yoree baas ñëw fekk na ko ne di ko baas di fa fanaan di fa yendu di dindi baas yi di sarsewaat di liggéey nañ ko bëgg noo ngi ñaan yàlla mu yeggale liggéey bi ba nun am fa ay pàkk ba bu ngeen ñëwatee nu man leen a dal ñu di fa togg di yàq ah di may nit ñu ndox di leen joxe basal ndax fi mu toll àll dong la ah ay garab muy defari dëkk di radu di bale noo ngi leen di sant di leen gërëm ñun nag nun nooy waa kuréelu ngaanaat buñ dee waaw nun nag noo indi xar mu mag noo ngi leen di sant di leen gërëm ñu yegg ca xar euh, sëñ bi ah, waaw ah, yow day sëñ bi yow defe naa ne président kuréel bi ak ban kuréel président bi ak nan nga gisee mbir mi daal liggéey bi yow yàgg nga cee ñëw léegi nag noo bëggoon nga defal na ci rappel ci mbirum liggéey bi waaw jërëjëf ah, man maay président wu kuréelu xidma jëf sant sëñ sant maam ca sanc ba a ah, liggéey bi nag wax dëgg yàlla doon na liggéey boo xam ne bii ah liggéey mënu koo gën a rëy tey ñu ngi ci sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax di sant sëñ Saaliw di ñaan mu yàgg fi di sant seen Codé Lo ndax lii lu mel nii moo mës a jóge Louga àndandoo taalibe yëpp ànd ci Serigne Touba. àndandoo jëlee lu toll nii Louga jëmee ko ci Serigne Saliou loolee daf koy musta am loolee mi ngi amee ci kuréelu jeewal kon nag wax dëgg yàlla liggéey bu rëy nii monsieur su koo gis te ku ñëw fii gis fii xal yi fi daje xam ne lii ah liggéey bu Serigne Touba gënal bu Serigne Touba nangu la kon nag li nga xam ne moo wérte woon mooy ñàkk cee bokk moo wóoru ah, dëkk ci réew mi mépp hmm. ci tund njàmbur gépp te liggéey bii liggéey bu toll nii sa dala demu ci sa loxo demu ci sa mm. xalaat demu ci mm. sa doole demu ci mm. kooku moom ëpp naa def kon nag ñu ngi ñaan suñ ko de yàgg fi te liggéey bi suñ saaliwu nangul ñu ko ñu di ko gën a mën nag at mu ne ñu gën a yóbbu ñu gën a bari te gën a rëy wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax a liggéey bu rafet la ñun ñi nga xam ne yàlla fekkeloo nañu samp ba a ah, dëgg-dëgg rëccuwuñ ko waaw yàlla na jëm kanam xar bi mooy ban kuréel. mooy kuréelu sant Serigne Saliou. di numéro un. numéro mooy numéro un. Hmm. noo gisee liggéey bi nag. mane ne noo gisee liggéey bi. liggéey bi xanaa di ñaan yàgg koo fekk rek day ñaan fu nu fi toll ren man bu déwénee rek lu weesu lu weesu ko rek ba fi nga xam ne bëgg nañu ko faa yóbbu lu yàgg la ko faa jàmm rek. day gën a faam ñu rafet suñu njot fi rek di liggéeyal sëriñ Tuubaa ba bàyyi ko fi bàyyi koog suñu njaboot ba ñu bàyyi koog seen i sët seen dooni taalibe rek na ko yàlla nangu sa taalibe lépp taalibe nu mën a mel ci gën a am solo bu ñu nangu ko bu ñu yomb lool dana fas di liggéey rek nag guddi ak bëccëg lu ñu ci def daal na ngeen fekk ne koy jéem itam nag lu ci gànt lu ñu ci dellu gannaaw xar mi nag ren dafa dem ba ci catul liggéey bi mu xaw a indi wàcc na sax ba ñu mën dafa dem ba ci caatu liggéey bi mu indi jukko yoo xam ne daal ndax fi mu nekk loo ko jox mu bay la ko lam a bëgg moom la gën a bañ lekk ci fan yi daal dafa soppi ko ba nga xam ne daal nangu la lekk dara ko joxee ñebe mu bàyyi repas koraay loo ko jox mu bàyyi li muy mos a ko si néew daal ngooñ la <laughs> waaye baax na même son bi defal naa ko mu waaye baax na même son bi defal naa ko bu ci mosee tuuti rek bàyyi bu nu sañoon daal eh, mu ëpp ah yées la wuna fi nag waaye bu nu sañoon it mu weesu fii rek waaw loolu daal foofu daal lan toll ci liggéey waaw ah, jërëjëf kon nag leen bu baax yàlla nañ ko gën a mën ay at yi at yi at mu jëm ci kanam kon nag ñoo ngi topp ci gannaaw suñ papa ko delloo rek di ñaan mu yàgg fi ndigalam nit ñu di ko jëfe rek incha allah jërëjëf njaxat ah Souleymane ña ko indi waaw dëgg la koy xaru njaxar waaw bii ban ah bii la. Miftaaxu Nasri Géoul. waaw waaw. teel teel. tegi sa loxo. fi nga teg sa loxo. kon nag asalaamaaleykum sëñ bi. ah yow yaay yaay yaay yaay yor ban kuréel fi ne nekk nooru daara yi ah gisee mbir mi nag borom ñaari leen waaw noo gisee mbir mi nag xanaa fas yéene waaw at mu nekk nu ko waaw kii nag ah, Serigne Thierno bi lu nekk ci moom moo ko ci def. wax dëgg. est que bu ñu sañoon nag at mu nekk rek. te fas nañ ko yéene at mu dikkee rek. Euh, dana fi yéene li mu toll woon. loolu lañ ci fas yéene waaw ndax ñun sa lekk sëñ Tuubaa rek lañ fi nekkal moom la ñuy liggéeyal. est-ce que kontaan nga daal ci mbir mi daal. lool lool dégg naa. yal na ko yàlla jëmee kanam. amiin bi jaay jërëjëf. amiin alhamdulilah. jërëjëf. waaw waaye li nga def xam ñëw. wonderful. waaw. mu ne la Touba. mu nekk bu ko yàlla dogalee fas yéene suñu xar. ñun nag ren rek bu déwénee fas na ko yéene. te eh, ñun nag amuñu lenn lu dul di ñaam eh, topp ci gannaaw Serigne Codé Lo moom Serigne Saliou ci fii tund jeewal. Touba Ndoukou. Touba Ndoukou eh, lépp loo xam ne rek suñ ko dee santaane na ko rek fas ngeen ci yéene taaw eh, suñ ko dee noo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla jiite yàgg a jiite ci jeewal ñu yàgg ànd ak moom wuy ji suñu saadu leen dellu si gannaaw ndax mën a génn nag yéen tam nag. waaw kooku waxal ñaa ngi ci. ah. yaa ngi ci waxal ban xar. xar Touba Khalil. Touba gisee liggéey bi. liggéey bi dafa sant dañ cee sant yàlla bu baax kontaan ci. yaa ko indi maa ko indi su ku ñuy wax Modou Sougou nag sëñ Modou moo ko yaroon moo ko yoroon liggéey bi daal kontaan nañ ci lool ndax képp ku la ñoo di jëmee ci Serigne Touba da nga war a kontaan baax ñoo ñaan yàlla yàggal fi Serigne Saliou Mbacké suñ ko dee yàgg suñ kanam na yàgg topp ci yàlla mën na may na wér ak man boo fa nageen déwén ndax nageen déw yàlla may na wér bu ñu defee am xar mu gën ñii noo ngi ñaan yàlla defal ko yonent bi Sëriñ waa suñ seen laaj ak suñ kanam lii nga rafet na lool jërëjëf moo de xaru waa la ñu fas yéene liggéey Serigne Touba rek ni nga xam ne moom la ko Serigne Saliou diglee ñoom itam ni ñu ko waxee rek nee nañu Serigne Saliou moo ko digle waaye ñoom déglu wuñ sax digalu Serigne Saliou ndigalu Serigne Papa Codé loolu la ñu déglu ni Serigne Saliou di déglu ndigalu Serigne Touba maa ngi koy nuyu bu baax te dafa gërëm noonu waa kër Ibrahima Maram noonu daal ndigal rek la ñu déglu muy ndigal suñ kodde xamul lenn noonu fii ci région de Louga xamul lenn noonu suñ kodde suñ kodde daal lu mu wax noonu la loolu rek noo nga ca biir lu mu santaan daal loolu loolu noo nga ca guddi ak bëccëg fu mu la ay ca daal daal di takku takku ci moom noo ngi sant yàlla bu baax na te di ko gërëm te di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram noonu waa kër gi kii nag mooy suñ xaram tabaski wasalaam jërëjëf yéen waa kër Ibra Maram euh, borom yi Pastef ngeen ni ngeen ko waxee yaakaar naa bu bu déwénee ak li ngeen teg seen bët fii ci euh, place bi nga xam ne fi la xar yi daje bu yàlla kenn du leen man ñu ngi ñaan itam mbokki taalibe yi ñu bàyyi xel ci loolu yi nga xam ne seen Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke dafa waxoon ne yéen waa jeewal ñuy liggéeyloo ngeen liggéeyloo liggéeyloo boobu nag ah sëñ Codé firee ko ci ne xew-xew diine bu nekk wane nañ cee taxaw liggéey ci sëriñ Tuubaa muy liggéey boo xam ne sëñ Touba nangu na ko ndax sëñ Saliou ko wax ci làmmiñu bopp kon wartee fi nga xam ne dañ koo jaayante ak Serigne Touba di ko war a def kuréel bu ne di war koo nat at mu nekk ni kenn ku nekk góorgóorlu boo bañ cee yore benn bor boo xam ne dañ la koy topp loolu mooy lan carte yi bu ñëwee nañ ko jënd fay ko loolu mooy lan euh, suukaru koor bu ci kenn yore bor loolu mooy lan tabaski kenn ku ne indi am xaram bañ koy jéegal loolu mooy lan bu tam xarit kenn ku nekk na indi li nga xam ne mooy natt bi nga xam ne moo ci war a am su tamit su gàmmu ñëwee itam noonu su màggalu Tuubaa ñëwee noonu nañ àndandoo liggéey Sëriñ Tuubaa ci gannaaw Papa Codé Lo bu ko defee ndam rek la ñu am tey ak ëllëg. waaw Sëriñ Codé mu barkeelu ci. Sëriñ ah, liggéey bi moom nii ñu ko gisee rek noonu la ab taalibe daal fii mu toll li nga xam ne moom la war a def léegi muy ay pexeem ak am métier ak wutukaayu teraangaam mooy fexe ba luñ sa taane ci sëriñ bi kenn du ko jamant rek képp ku la mën ci sëriñ bi moom ak loo ko ëpp ëppi pexe loo ko gën gën a nangoo sonn ak loo ko gën a mën a kër këri kër këri kër këri dana la raw kon nag fexe nañ fexe mënante ci mbiru sëriñ bi ndax sëriñ bi duñu digal loo xam ne lii ci baaxul du ñu tere loo xam ne lii baax na lum ñu digal loola mooy la gën ci ñum lum ñu tere loola baaxul ci ñum kon nag luñ ñu sant lu ne nañ fexe bu mën ca lii moom kenn ku ne bi nga dikkee xool waxuma nga ne xar mi ma indi ren bu demee ne di ma ko ëpp waaye kii fi mënum xar bu demee ne maa koy ëppale la kenn ku ne war a fanaanoo doog a delluwaat ku dem léegi fa nga yeewi woon sam xar na nga fa daal yeewaat meneen te fas ca yéenee sonn lii moom nekkul ngistal nekkul giiroo nekkul ëppanteen lu baax nag buñ dawee jëm ca kenn ku nekk di wàlli kenn ku nekk di wàlli nag wàlli googee kenn ku nekk di wàlli te bëgg a ëppale loola ku cay naan man du ma ca bokk ak gis te lu ma di ko lii lii moom wàlli def ci gaal la kenn ku nekk loo ci mën na nga ko ci def te loo ci def xeeb ko te ku la ci ëppale bu déwénee na ko maa leen ëppale wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Lo ana yàlla yàggal la fi ak jëwriñ ji nga xam ne moo ne sa gannaaw jiite kuréelu jeewal bi muy Ibrahima Samb léegi ñu jox ko mu sànni ci ay kàddu moom itam waaw jërë ngeen jëf kon maa ngi sant mboolam yëpp di ñaan yàlla ñu fekk at yi bare bare bare fii lii fi wax nag daanaka man du ci dellu si ndax daanaka matale na lépp fi may soññi jëm rek mooy pastef bii ñu am ci xar yi ak xar yi ren tubaarkàlla xar yi ci ëpp yëpp xar yi fi nekk yëpp amul benn bu fi bëgg ñaar fukki junni kon loolu dama ko jëlale léegi man li nga xam ne moom laay soññe te nga xam ne moom mooy dalal sama xel ci moom laa bëgg ñu takku nii parce que yi ñëw ci xar yi ñu def ko ba jeewal nekk dëkk na jeewal nekk dëkk jeewal nekk dëkk boo xam ne mooy ñaareelu ko Sëriñ Tuubaa feeg yóbbuñu ñu ne màggalu jeewal yóbbuñu ko lépp lu war am ci dëkk yëpp muy am forage am jumaa lépp nekk fa parce que ñu am nañu daal di bu ñu fi jógee nañu daal di songu jeewal mu daal di ku fa ñëw déwén wala déwén jéeg fekk nekk dëkk te étage lépp nekk fa tant que ak guñ foofu rek liggéey defagul dara maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaan yàlla dolli xéewali ba ñu mën a àggale loolu wasalaam rajo bi. ñuy sant ñuy sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba sant itam euh, ki nga xam ne ki moo fi nekkal Serigne Touba euh, di sëñ Papa Codé ak jëwriñam nga xam ne moo nekk suñu kanam jiite liggéey bi nga xam ne bii liggéey bu sell la euh, nu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax jëf ji jëf ju am solo la xam ne ji war na képp koo xam ne ci ab jullit la mbokki taalibe bi jëf jëf ji nag ak mbégte mi nga xam ne ni moom lañ ci am ak sant gi ci sant yàlla euh, te fasaale ci euh, mboolem ñi nga xam ne ay juddit lañu nekk ci kaw suuf euh, lu am solo la te bépp jëmm boo xam ne bii taxaw na fii di jëwriñu mbooloo teewal fi xar te ngeen gis xar yi valeur yi nga xam ne bii kenn ku nekk ku dem ci daral wala ngay jaay xar wala nga jënd xar war ngaa xam valeur yi xar yi nga xam ne moo fi yeewee te képp ku fi yeew am xar la nga fas yéene mooy bu déwénee nga ñëw daal mu ëpp ñun mbokki daal bi ñu nekk itam ci région Louga bi commune bi ak département bi yëpp kenn ku nekk li nga am yéene te di ko ñaan sa borom yi itam pour mu defal la ko mooy benn jëmm bu nekk nga bañ a bokkatee ak kenn di boole am di wut am xar waaye sa xarum bopp nga am yéene te xar mi itam doon xar mu ëpp nii kon ñuy sant yàlla bu baax a baax di sant jëwriñ yi nekk suñu kanam. ci liggéey bu sell bu rafet bi xam ne bii moom la ñu def te ànd ci mbégte te xalaat yi itam ni incha allah bu ñu demee Touba sëñ Saliou Mbacke ni sëñ Touba dana am mbégte suñu mbégte mi kon ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla may nu wér ak fekke euh, te itam ya suñu borom defal nu xéewal yu màgg yoo xam ne yi li ñu yéenee liggéeyal sëñ Touba yëpp ñu mën ko cee def bismillahi rahmaani ah, ñu ngi leen di gërëm benn fan ci wax dëgg yàlla li liggéey ba ànd ak pastef ak yéene la waaye nag yàlla même fay yàlla ngeen fay ba ngeen jéegal barke borom Touba jaa ngeen jëf jërëjëf jërëjëf jaay di leen gërëm leen dollee ngërëm nag bu baax ci liggéey bi ngeen liggéey te di ko defal Sëriñ Tuubaa liggéey bi yàlla na yàgg yàlla na ngeen ko yàgg a def te yàgg ko man ban kuréel nga maa ngi xit ma jëf sant maam Thierno sant ba Sidi waaw ah Ibra mooy sunu président Adja Aram Ngay Njaay mooy sunu président léegi noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni liggéey bi rafet na jaadu na yàlla na ngeen ko yàgg def yàlla na ko yàgg a fekke it te yàgg ko mën li ngeen liggéey yàlla na daje ngërëmal Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf dafa demoon génn bitim réew ba si léegi fekk liggéey bu rafet bii nga xam ne waaye jëloon ñu ngi koy liggéey Serigne Touba muy Serigne Modou Khali Lo léegi moom la ñu jox kàddu gi mu ay xalaatam bisimilah. jërëjëf Madiagne. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu di nuyu di leen sant di leen siyaare. ko góorgóorlu bu baax. ndax liggéey bi am na solo lool. rafet na lool lu postéefu la yal na jëm kanam te doole sëriñ Bamba mu mel ne mbirum sëriñ Tuubaa moo mel noonu ndax jëwri ñi góor yàlla yi bari woon nañ fi lool waaye rasulillah ci boppam moo sàkku ci boromam xaadim rasul nekk jëwriñam ndax moo wax ne raama rasulillahi min illahi kaw ni xadimuhu wa abdillahi kon noonu ni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon sàkku sëriñ Tuubaa nekk jëwriñam te fekkoon ne fi yeneen góor yàlla loolu it moo wàcc si ci ñun naka jekk fi kuréel yi am na fi ci Sénégal daayira yi bari na waaye nun noo féete woo jeewal liggéey Serigne Touba te liggéey bi liggéey bi Serigne Touba nangu la ndax Serigne Saliou Mbacké xalifa général de Mouride moo waxoon ne dakk dakkal wu ne yéen ñoo ñu liggéey loo ngeen loola nag waxu baatin la mooy mbir la moo xam ne nii mooy dara waratu yàqu fu ci réseau bi kenn war koo fekke noo ko war a réparé lépp foo xam ne seen bu dee dafa mënul ak juboon na war a dem defar ko te it fas yéene bu baax góorgóorlu liggéey sëriñ bi rek incha allahu taala yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan yàlla na dolli kattan dolli nu man-man na fekk ko ay at i at ba sëriñ bi gërëmal liggéey bi ba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ba dégg bu beneen ay jàmm. jërëjëf sëñ Modou Khady Lo. sëñ Gora Ndiaye. sëñ Gora fekk mujj te yaa ngi doog si liggéey baa ngi loo ci xam. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm ñoo leen di sant li moom ku fi taxaw ko ne sa xol sedd waaye nag liggéey bu jëm ci Serigne Touba moom képp koo xam ne kii yaa ngi ci liggéey ñu di la ca fekk ci biir liggéey ba ku dox ba agsi sa képp am na ca xéwal goo xam laak yéen ñi liggéey xéwal gu toll ni ngeen di ko indi li ñuy ñaan daal mooy sëñ Papa Codé Lo yàlla na fi yàgg lool ndax liggéey bi yëpp gannaaw yàlla moo nu ci teg moo nu ko wan te ku nekk mënoon ngaa liggéeyal sëñ Tuubaa boo jógee fi ci lu mel nii doo ca doo bokk ci liggéey bi mel noonu kon nag mun yàlla dimbali nañu boole nag moom ba ñuy liggéey ci liggéey bi mel nii jëme ko ci Serigne Saliou Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërëjëf nga wax am na maanaam kon euh, sëñ Mañang loo xam ci liggéey bi ah jërëjëf Dibé kon day liggéey war lañu cee wax di liggéey kenn mësu koo gis daaw joxe nañu ñeen fukki xar ak ñaar fii taxaw di wax ñoo ngi yeew juróom fukk ak ñett te yemuf kon defe naa balaa suba bu mat juróom benn fukk بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلدي mbokki taalibe yi mbokki waa tund jeewal yéen teew fii tey ngir yàlla yonent bi ak sëñ Touba ak fas ko yéene dajale xar yi yóbbu ko Touba dama wax ne nëgë ni daaw dajaloo nañu fi dajale ñeen fukki xar ak ñaar yetti ko sëñ Touba fii ma taxaw di wax ak yéen tey ngeen dajale fi juróom fukki xar ak ñett te yemagu fi ma ragal ne balaa suba daañu yebul war mat juróom benn fukki xar te di ko xeeb kon li sëriñ bi ne woon ñu ngi leen di liggéeyloo liggéey bi yéen na ci yoon wi guddi ak bëccëg yal nañ ko yàgg man ci gannaaw sëñ bi yal nañ ko yàgg man ci gannaaw papa Codéloo kon soññe baa ngi képp koo xam ne bokkuloo ci jeewal képp koo xam ne nekkoo ci liggéey bi képp koo xam ne dugaloo ci sa li ngay def wóorul te woo nañu ñëpp pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ba lii ñu mën ren bu dee nee ñu mën ko te it ñëpp jublu dégg ci jeewal mébét ba ñu fa gis ak liggéey ba ñu fa gis ñu gën a def mébét boo xam ne ku dugg jeewal xam ne dégg nga lañ ñu santoon ñooñu ci liggéey bi. loolu laa doon wax léegi ci bis déwénati yàlla nañ fi teew yi déwén ñun ñëpp taxaar yi bari loolu laa

Kok te pengen pengen a bàyyi ba ba mu jàppandi ko. ah moo daa bàyyi place bi tàkku la kooku te bàyyi ah. lan dañ fa voilà wala xar bu ma dañ teg liggéey ñaan ko ci ba xam ma ne ko fara yaa fara

Bye.

Serigne Fall. est-ce que. Sall Serigne Fall. Sall ñoo di soxal naa ko benn pause la Sall. soleil bi ngay tiré moom baax na nga am image. wut na bi nga tiré kay mu jaaxal. waaw waaw waaw. wër leen xar yi wër leen xar yi wër leen jëm jëm ak moom. sëñ bi gannaaw bi nga gisee sëriñ bi mu siyaare ba pare lu ci sa xalaat nag léegi ba ba mu xool xar yi ba pare. xanaa ak mbégte lool kontaan kontaan bu uh, wér a wér. ñu ngi ñaan daal ci màggoog yàlla mu baax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yërmande Sëriñ Tuuba na gën a digal xar yi gën fee gën a rëy ëpp fii ci wàllu lim te am nañ ci yaakaar bu baax a noo gisee mbir mi bokk. waaw kaw ak ban kuréel nga bokk. waaw noo gisee mbir mi. mbir mi rafet na ko rek kontaan rek. kontaan si lool di ñaan mu yàgg lool. si bi yàgg si lool mu yàgg lool. mu yàgg doon santaane mu yàgg ko def rek. jërëjëf ak suñu bant. waaw ñun ñëpp bokk jëriñ waaw. contrôlé ma sama gannaaw rek. ah contrôlé sama gannaaw jàppal ma yàlla nga jàppal ma sama loxo.

waaye affaire bi boo jàkkaarloo déedéet boo jàkkaarloo ñoom it da dem ba mujj dangay ngay dan lay rawaat ndax dan lay rawaat dan dan may rawaat moo tax dan may rawaat sax am na loo xam ne bopp ñoo mën a waaxu xar yee mën a waaxu waaw da ngeen di bloqué waaye bu ngeen di leen bàyyee ñuy dem rek waa bàyyil ñu dem bàyyil ñu dem bàyyil ñu dem may jël par ndànk bàyyil ñu dem ma dem jël par ndànk laaj na ne nangam la ñu gën a ko ba xool gis yëpp léegi ne kii kii Diop boobu. waaw Bak. Hey! taxawal fii yow itam.

juróom benn juróom ñett juróom ñeent fukk waaw ñaar fukk ñëw benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk fanweer benn ñaar ñett eh toppal fi waay juróom juróom benn juróom ñett juróom ñeent waaw 42 ah. 3 benn bopp benn ñaar ci dugub lu dugub lu defante boo defante ju juróom juróom moom mooy juróom soog juróom Enggak lah, jalan mau kira-kira, mau kira-kira apa din leen kii bi baat bi ci bàyyi kii mu def jërëjëf ñi yeew ñi yeew

bi mooy kër sëñ Touba. mooy kër sëñ Touba noo gisee siyaar bi nag tey ji siyaar bi daal tuwaar fakkat la neex na am na baatin sëñ bi ci boppam yi mën a ci li xam ne waa jeewal indi nañ ndax li mu wax mooy ah, yéen a di lépp loolu hmm. nanga ko waxee ah, yéemu na ci mbir mi te eh, loolu kontaante la loolu nangu liggéey bu mu nangu rek la ñu war a cee sant yàlla bu baax kon ñaata kuréel nga ne moom moo composé mbir mi kuréel yi nga xam ne ñoo indi mi daal juróom fukki kuréel ak juróom juróom fukki kuréel ak juróom. Euh, maanaam euh, ñoo ndimu boobu ñoo indi juróom fukki xalaat ah, nag sëñ bi Sall yow luy sa xalaat ci mbir mi. ah gis naa ko la xanaa gis xanaa di dolli cant rek. Hmm. te yokk noonu ñu gën a man li ñu gën a man leneen lu ko ëpp rek. est-ce que ku liggéey sëñ bi sa waaw loolu rafet la ndax man man li ma li ma seetlu ci mbirum mooy li li ñu ko yóbbuloon nit ñi daaw ba pare tey jii ñu dikk nag sëñ bi daat koy groupé fenn xam naa ne kooku. naka mbir mi. xanaa sedd xool rek. kontaan rek. donc sedd xool di ñaan yàlla rek ak mu nekk nu gën koo man lu ñu ci bëgg rek. sëñ Touba defal na ko. tey ñaanal sëñ Codé rek. waaw mu yàgg fi lool. sëñ Saliou bi yàgg fi lool sëñ Codé mi nga xam ne moom la teg ci suñu kanam. jërëjëf waaw. bi ban kuréel nga. man maay soppee sëñ Codé Lo. soppee sëñ Codé Lo noo gisee mbir mi. liñ laal ni mu gëlee. Hmm. sëñ Saliou dafa mel xéwal goo xam ni ñun ñepp gone ye mag ñe lepp mën nañ ci jàng ab liggéey yow lu ko nga jóge waaw lu ko señ bi yow ku ci la da ngay wax sa tour rek wax señ bi yow ban man Abdou Sow Abdou Sow mm. waaw Abdou Sow ku kuréel jéwal la bok sama sëriñ ngi ni toog sama sëriñ yow ban kuréel nga bok noo ngi sant yalla bu baax rek mm. sant sëriñ Touba sa tour noo ngi dëkk Touba ñu Touba Ndiaw Ndiaw sa tur Sigil Mbaye Fall Mbaye Fall noo ngi kontaan bu baax di sant rek yàlla mi nga xam ne moo na boole ci sëriñ kenn ku ne wax sa tur rek na guy sëñ ko def nag yàlla na ko fi yàlla yàgg ak fekk sëriñ ngi ba nu ñëw fekk si leen ci sama sëriñ yow ban tur la bokk ban kuréel di kontaan rek. di bi jëm sama sëriñ. waaw. Moussa. ban bu nu leen kontaan nga daal. sama sëriñ yow. Makhtar Diop. bokk ban kuréel ci organisateur ndigal sama sëriñ. man lay tubaab laa. bokk ban kuréel. ndigal ndigal. kontaan nga rek hmm. sama sëriñ. yow ban kuréel nga ban tudd ban tur nga bari Bassirou Cissé noo gisee mbir mi na di rek gën faa nekk ba nañu doyloo ma jox ma si yoon si yoon xar ko ñu yónni ma ko ndax doyloo ma loolu naa ñun si sant sant sa xam sama gannaaw ko sama sëriñ yow ban kuréel ak ban tur ban tur ñang ngeen def ci mbir mi sant yàlla sant sëñ Saliou di gërëm sëñ Konte yàlla na fi yàgg. noo ngi leen di ñaanal. di ñaan ñu yokk taalibe gi. ñoo gën a góorgóorlu. yàlla na nu yàlla ak sëñ Touba jàppale. noo ngi leen di sant yéen waa Louga. noonu waa Touba Nganaan. noonu nag noonu nooy xaandorub jeewal. ku ñëw fekk nu fa ku dem bàyyi nu fa. parce que nañ yéene daal gan gu fa yegsi. Hmm. lu fa mën a tax rek noonu noo koy noo sant nañ leen bu baax wasalaam. jërëjëf sama sëriñ yow ban kuréel nga ak tur yi. moom xasaayit Touba Kébé Ndekte. Hmm. noo sant. Seck. est-ce que yow de yaa fi gën a sant. Ah, ah, ñu ah, sama sëriñ yow. tur yi dëkk ba nekk ban kuréel. jëf jël. noo gisee mbir ah di sant rek. sant yàlla yéen rek Serigne Touba. est-ce di sant sëñ Saliou ak sëñ Codé ñu yàgg suñu kanam. est-ce que sama xol daal fees mën naa wax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. sama sëriñ. ah tur wi. Momadou Guèye Kër Mayib Guèye. noo gisee mbir mi sant Serigne Touba sant sëñ Saliou sant sëñ Pape Codé Lo. Ah, xam ne mbir mi kat euh, li ma ci gën a moom mooy yàggee dugg waaye lii ku ci dugg ku ci ku ci war a dugg ku ne. war nga sant yalla ku ci dug bu ne war ngaa sant yalla ak yéen serigne Touba man nak sant na sama kurel ndax japp lañ wéré wéré wéré wéré ma ngi sant waa jéewal yëpp na fi yalla yagal serigne Saliou mbak nu yàgg fi fee indi ci barke serigne Mamadou Diop Mbacke barke sëñ Moussa Mbow jërëjëf serigne ban ban tout man de la Ndiaye ban no gisé subhanallah gisee euh fatte ngop no gisé mbir bi sant yàlla di ko Touba ak am lo xamné ne amugo tubaab yëpp passé nañ ci ne fii xar yi deew rek mosul wu. sant yàlla yéen suñu tubaab suñu code yàlla fi yàgg suñu sa sama sëriñ yow ban tur Modou Sylla bokk ban kuréel ndigal noo gisee mbir bi moo ko gisee sant yàlla ak yonent ak sëñ Touba ak sëñ Saliou Mbacke ak sëñ Codé di sant waa Jeewal ñëpp nag te bëgg murit yëpp takk ko liggéeyal sëñ Touba mooy nu wér wér gu ko liggéeyal bu baax a baax te boole fu nu bopp nekk benn te bàyyi tappale yi nag na ñëpp yi teg waaw ñëpp yi teg sama sëriñ ban ban tur Aliou Diaw ban kuréel kuréelu xidma jëf noo gisee mbir bi mbir mi moom sant rek bu baax a baax a baax a baax xam naa ni képp ku ñëw daaw ñëw fi mhm. xam ne gis nga ci yokkute ci nombre xar yi ci qualité xar yi kon boog sant rek xam ni kanam la jëm waaw xam naa ni moom bandi bi moom bu ko ñëpp gisee kuréel yëpp bu ñu ko gisee hmm. danañ xam li ñuy liggéey lu mu doon ba tax na bu ëllëgee danañ gën a am pasteur loolu daal laa ci yor wasalaam waaw sama sëriñ yow ban tur <coughs> Papa Sall ban ban kuréel ndigal ndigal waaw noo gisee mbir mi xanaa ah, sant sëñ Saliou rek ak sëñ kon nag ñoo ngi ci alxames tey fukki fan ci weeru avril ah 1997 ñu nekk ci 11 cinquante 58 sama montre mbaa am na heure loolu la de ci biir caméra bi sama sëriñ yow ban heure euh, ban kii ban kuréel ak ban tur. sëñ mbooj Moustapha Mbodj. Mamadou bokk ban kuréel. taw na say Touba noo gisee mbir bi. mbir mi ni ma gisee mooy. ñoo mhm. ngi yàlla bu baax a baax. sant sëñ Papa Codé Lo. ak sëñ Ba Samb moom mi ngi dugal ci liggéey bi nga xam ne. Mhm. tey tali bi fi teew. Hmm. war nga xam ne liggéey bi seen seen tubaab nangu na. est-ce que la ñu taamu na ngi ñaan at mu fi ñëwee. Hmm. buñ daal itam kenn bañ noo daal. est-ce que kon ñaan ci dal ji seen tubaab. sama ah, di sant yàlla. tur wi tur wi. Mourine Niang Mourine Niang. taalibe Cheikh ah, ban kuréel. Eh, kuréel Miftahul eh, ba sant yàlla bi ñu si ñaama met ñu ngi ñaanal Cheikh Saliou bu yàgg fi lool. di ñaanal sëriñ Kodelo ak sëriñ Ibrahima Sam mi xam ni moo nekk ci bopp kuréelu jeewal bi hmm. ñuy ñaanal mboolem koo xam ni euh, membre nga ci kuréelu jeewal yàlla may la fan wu gudd ak wér gu yaram hmm. ba nga mën a liggéeyal sëriñ bi na nga ko bëggee hmm. ñuy ñaan mbooloo mi yàlla na ko yàlla gën a yokk wala suñ fi ñëw muy ay oto yu bare bare lépp lu fi waay jëf yàlla bu mu niil fii yàlla bu mu niil fële barke Cheikh Mouhamed Lamine Bara sant ñi sama sëriñ ban ban ak ban kuréel di ko bëjaan Touba Tanim. Touba Tanim. waaw noo gisee mbir mi. ah ñoo ngi sant yàlla. di ko ñaan wér di ñaan mu may nu kattan bu nu mën a liggéey Serigne Touba barke Cheikh Saliou barke Sëñ Mbacke Soxna Lo. ñoo hmm. ngi koy ñaan mu yàgg lool hmm. te barke wasalaam. sama sëriñ ban tur. tur Abdou Fall. ban kuréel Touba Xalil. ban noo gisee mbir mi. mbir mi daal sedd xool rek. tawakkal ñoo ñaan yàlla yàggal yàggal yàggal suñu Saliou Mbacké. takku bu baax rek ak bu baax ci góorgóorlu. tawakkal suñu ko teg ñi ma dal ñëpp yàlla yàggal fi may leen wér nu yàgg topp ñoom. yàlla may leen wér gun ko def. tawakkal at mu gën dikk rek gën nii. waaw ko yàlla suñu too defal. tawakkal yàlla defal mu wér wér li. ci gannaaw Ibba Samb rek sama sëriñ sama sëriñ yow ban tur la. ban tur. Mbaye Diop noo gisee mbir mi ah mbir li ma gisee moom am solo rek. yàlla na nañu yàlla yontu ak jëm Sëñ Tuubaa taxawal. ba li ñu ci bëgg lépp. nga ne moo ci sunu bëgg-bëgg yàlla na yàlla àggale. amiin yàlla na fi yàlla yàggal sëñ Saliou Mbacké. loolu yéen yàlla na fi yàggal sëñ Codé. ak wér. amiin lu am nag ci lii dana ko sant sëñ Codé. ndax li wér nag gannaaw yàlla lii lépp moom nag. waaw bu moom nag lii mën a ba yem. kon nag nañ ko ci sant bu baax te ñaan ko bu wér te ñaan Ibou Samb ak bu wér moom itam ak ñi nga xam ne ñoo nga ko jeewal ñëpp yàlla dolli leen ay xéewal te dolli leen am xel ba ñu tëyir jeewal na nga xam noonu noonu lañ ko bëggee kon lépp luñ ci bëgg rek yàlla sama sëriñ yow ban tur la ak ban kuréel Baara Ndiaye Tawfeex mbir mi nan xanaa gën a santaat yàlla bu baax euh, gërëmat euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Salihou Mbacké yilif murid yëpp ak Serigne kodde mi nga xamne mom lañu sampal ci Louga di ñaan rek euh, at mu ne tawfeex gi yokku sama serigne yow ban tour la Mbacké Cissé ban kurel ma fa teewal wa Sancu jaji ak keur Mat Ndaw Cissé ak Njaxati Ndaw d'accord na ma gisee mbir mi sëriñ bu baax hmm. mu yag fi te wer ñu soññaat taalibe yi ci comme ni ñu ñëwee ci yoon wi ñëpp doole ci góorgóorlu kenn ku ne noo xam ne lii nu fi indi fas yéene bu déwénee hmm. nii ni faat fi nen loo xam ne si lu ko ëpp ko ful kenn ku ne la nga ñaan ci suñu borom hmm. wër sa gëlal bu ëllëg bu hmm. gën a yokk loolu ba kenn ku ne mu gën a soo ñaat sama bopp ci laay tàmbalee ma fas yéene fa ma yeewal sama xaar jële ko ko démb ba may ñëw ma yeewaat fa mel ne parce que yéeme déej ba ba ñuy jël waat fii. mu mel na meloon bi mu ko fi indi wala mu raw ci doole sañ Tuubaa. sama sëriñ ban tur la ak ban kuréel. Cheikh Niang Kër Moussa Kébé. noo gisee mbir mi. sant yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa. d'accord ah, dafa ñëwee góorgóorlu rek maanaam. waaw ko gisee daal. lu manqué daal ci ñun ñuy joxe la waaye lépp war naa mën a mat ndax ki ñu jàppale tëlewul kon nag pour ñu ci am pas-pas rek daanu ko mën. ndax daa fi mu xaar dafa deewoon. Hmm. ñu wax ne leen daal maanaam xarum sëñ bi déwul suñu xara de hmm. ren ñaari xar la ñu teg foofu nañu yéene bu déwénee daal hmm. dañuy yokk waaye duñu wàññi ah, foofu nañu yéene am nañ pas-pas daal torkam sant naa yàlla bu baax ni ko fekkee déwén fekk koy déwén yi déwén yi déwén ñëpp fekkee ko tal ko te xéewal yi gën a yokk sama sëriñ ban tur Aliou ci bu ban kuréel kuréelu mat la foofu sëñ Tuubaa ci gisee mbir mi nan mbir moom daanaka xamatuma man moom mën a wax ndax li ñu war a wax ne ñii fi jiitu wax kay takkuwaat rek fas yéen rek man personnellement bu dee dama daan ñëw loolu rek la fas yéen di soññ ñëpp it nag ni ñu ñëwee daan ay cinquante cinq indi jubli yëm sax dëgg la naam yéegul ndax daaw danaa ngeen fukk ak ñaar indi woon ren ñoon di juróom fukk juróom mel na ne limun na furul na qualité xar itam gën naa baax waaye maa ngi ñaan ci doole Serigne Touba mi nga xam ne moo wax ne Eh, anan anan anan naq man taxalaq njëriñ ñi nga xam ne ñoo aju ci man bi xadri arakaati yi mi ngi takk seen comme ni seen yëngu toll Sëriñ Tuubaa moom mu lay ñaan bu déwénee kuréel yi nekk mën ni nombre kuréel yi toll ñëpp joxe xar cent pour cent kenn bañ a ay sax te xar yi ñu joxe bu déwénee gën xar yi joxe ren te sëriñ bi nangu na ndax kët ni sëriñ bee waxoon daaw man jàpp fàtte naa tur bi ngeen ne liggéey bi ñàkk cee bokk wóoru ñàkk cee bokk ñàkk gee wóoru di raw na raw na xel ndax liggéey bu ñor sëñ Saliou ba mu ñokkati ko tànkam jikk fekk ko ak eh, anam gi ma ko gisee tey xam ne wóor ma ne ay kuréel mën naa jóge fu ne ci anam gu nekk dikk bi duñ ko mën a gis ndax ni ma ko gisee mel ne ak biram matiw ko kon noonu war na sant yàlla te dàgg ku baax nag hmm. sëñ bi sox nanu kët te war nee iya, na wax la moo amee foo waaye da ala naqaati wala yeen tafi lu mu ñaxtee kenn ku ne comme si nga muy dal sa jeesi lu waay di yim sëñ bi mënu ko ci xolam la bañ sëñ bi na lépp kon nag way bi moom benn la rek waaw maanaam bi moom jëkkante wujj ci sëriñ Touba rek la kon ah waaw bu rek bu kenn ku ne ah rek ne mbir sama sëriñ yow ban ban ban kii la ban tur la ak ban kuréel Touba Njaxar mhm. sant yàlla sant Serigne Touba rek. sa tur nag. Samba Kumba Sall. Samba Kumba Sall. waaw dëgg la. ñaan yàlla mbir mi. ñaan yàlla yàlla yokk ko rek noonu de biñ ci duggee yàggul. daaw lañ ci duggoon. waaye suñ dara tardé gu. est-ce que. noo ngi fas yéene nag yàlla dolli ko ba mu gën fee kii rek. gën fee takku rek. gën fee takku rek. jërëjëf. sama sëriñ yow ban tur la. Moustapha bokk ban kurél Daaru Salaam xéewal gisee mbir mi nan Louga warkal noo gisee mbir mi gannaaw yi man sante yàlla ak yonante bi ak sëriñ Saliou Mbacké hmm. ak sëriñ Pape Codé sunu président Modou Wade hmm. ak maam Kula Diop nun hmm. noo ngi sant yàlla bu baax ak yonante bi ak sëriñ bi fas yéene nekk ci ndigal rek lu ngeen digal nu def ko lu ngeen di tere nu bàyyi ko wasalaam jërëjëf sama sëriñ ah ban tur la ak ban kuréel ak noo gisee mbir mi jërëjëf sëñ Galaye euh, suñu kuréel bi moom euh, sëñ Malick Sarr wax na ci léegi euh, li may dolli rek mooy dolli sant yàlla ak yonent bi sallallahu sant sëriñ Tuubaa sa tur nag sant itam jëwri ñi nga xam ne yi ñoo nekk ci suñu kanam sa tur sa tur dana ñëw Modou Bara ah. li nuy mën a seede rek te ci bokk na ci li nu gis moo di rek amaat nañu tawféex hmm. tawféex nag moom yaakaar naa ni ci gàttal rek loo mënta am hmm. xamoo foo koy jëlee. Hmm. Eh, te mu am mënoo fexe mënoo hmm. eh, ko ñàkk. loola dikk waaxu ba dikk fekk si la. moom la ñu amaat fii tey. moom la ñu amaat fii tey te itam eh, bu ñu ko sant yàlla ak yonent bi sant ko lañ Touba sant ko ci Serigne Codé Lo mii. Oh, ak jëwriñ ji nga xam ne jii ñun ñëpp xam nañ ko pëstéefam ak taxawaayam ak bëgg li muy def ak xam itam liñ ko jox lan la. muy sëñ Ibrahima Samb euh, li may dénk rek sama bopp di ko dénk itam nun ñi fi teew ñëpp te teewal fii itam euh, mën naa ni euh, mbooleem lislaam lañ fi teewal ndax jëf ji nu jëf te jëf ko ci sëriñ Touba te fasaali ci yéen jullit ñëpp ak jëfin wi li mu rafete te tawféex bi may wax liñ fi mën a seede te ñëpp bokk gisandoo moo di li sababoon ñu àndandoo ak mbooloo mii fi teew tey jii bëggoon bu nu wàccee xar yi kenn ku ne jàpp ci buumu xar benn xar bañ a fa euh, jëm fenn ndax jënn jëmi sañ ko de mën na ko indi mën naa yebal sëñ Ibrahima Samb même jëmmi boppam mu indi waaye ni ko sëriñ bi daan defee di ko joxee ndigal bu dikkee mu santaat ko ci ab liggéey mooy génn kër sëriñ Tuubaa gu ci nekk ñu waa fa wàcc fa am xar loolee tawféex bi may wax mën naa koo joxeñ jëmale ko foofu moom lañu yéene woon fas ko ba moo tax dikkin wi nu dikkee ko ndax kenn ku nekk mën a jàpp ci buumu xar tawféex gi ni ci am nag mooy loolee yegg na Serigne Touba nangul nanu ko loolu mooy loolu fekkantu duñ ci te gis ngeen fii nu toog ci kër Serigne Touba bi climatiseur yi dinu upp nu bokk toog fii te it incha allah xéewal yaakaar naa ne mi ngi waaj jën si ci noonu loolu fasal leneen ci ñëpp ñi nga xam ne ñi itam xam naa ni fi ñu toll seen xel a ngi fi buntu bi euh, lu bàyyi xel nag ci sëñ Codé mi ndigal yi muy santaane ndigal yi muy santaane euh, li nu ci euh, li nu ciy jox seede rek moo di Euh, àjjana rek euh, taalibe yu bare yoo xam ne ni seen xel dafa gàtt ne man ñoom la leen la ñuy def àjjana rek lañ ci yaakaar te àjjana li ñuy soxla fii ci àddina bu ñu demee ba àjjana bu ñu jàpp ni du ñu amaat beneen yitte daanu am beneen yitte boo xam ne bii daanu soxla borom xam-xam ku demee ne ko suñ ko demee loolu la ko waral feeñ na ci lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waa àjjana euh, danañu am beneen yitte bu ñu demee àjjana la yitte ba naka lay demee mooy ajjuma ju nekk danañu ziyaare borom bi tabaraka wa taala bu ñu ko ziyaaree dana wëlbatiku ni leen lan mooy seen aajo lu ngeen bëggaat ku xas dem àjjana dootoo xam lan mooy si bëgg-bëgg wala ndax mm. euh, la fa ne moom mm, niñ koy misaale ban bëgg-bëgg ngay war a amal ndax suñu borom moo dul jeex la lenn te am na lu nekk bu boobaa nan la ñuy waa àjjana def dañuy wëlbatiku ah, laaj borom xam-xam yi ni lu ngeen a xalaat ni moom la ñuy moom la ñuy bëgg bu boobaa euh, borom xam-xam yi ñooy xalaat ci suñu suñu borom ñaan ko loo xam ne bii lu bokkul ak la ñu gis ci àjjana loolu nag li ma ci bëgg li tax ma fàttali rek moy ndigal yi nga xamni seigne sëñ Codé daf koy joxe te kenn ku nek xamni alim la abid la mourid saadix la te it fukki région yi nga xamni ñoy ñooy seigne touba Tuubaa yëpp nek ci fi kenn ku ci nek te jëwriñ fa nga nek seedeel nga seigne Codé li mu nek kon bu nu ko yàlla wërsëgalee mu nek région bi di joxe ndigal yi nga xamni mom lay joxe li waru gar daal tey ak sante seigne touba moy lu mu ci santane rek nga def ci lo man ba jëm ci lo mënu te région bi gis ngeen ni bërki démb laa bàyyi ko fii dem ba région du Cap-Vert am dëgg-dëgg itam ci région Sine Saloum daanaka xar ñoom ren euh, amuñu ci solo noonu ndar gis naa bërki démb ku fa bàyyi ko jënde fa xar waxtaan ak man waaye ñëpp maase nañ ci ni xar yi nga xam ni moo nekk ci région Louga bi amul beneen région bu am xar yu toll noonu ci lim amuñu xar yu mel noonu ci ak suuraay te loolu nag euh, bu kenn xalaat ni leneen maye na ko lu dul jëf ji nga xam ne ji moom la ñuy jëf kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ak yeneen yu dul yooyu yi nga xam ni moom la suñ ko dëj santaani wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf barkala sëñ Modou Bara Diop sa wax rafet na jërëjëf ñoo ngi lay sant di la di la di la gërëm ah di jàll ci ki nga xam ne moom mooy ah, ki indi yoon rajo bi ñu koy laaj turam di ko laaj ci ban kuréel la bokk ak nu mu gisee mbir mi. ok mooy sëñ Mor Talla Sylla rek. Ah. Eh, rek maa

yàlla mu yàgg indi too Touba. Pape Boy. sama sëriñ yow ban kuréel nga ak noo tudd. mbay Diop bokk ban kuréel. Mbaye Diop. Njaañ. ah waaw waaw fi ah. boole maag suñu kodde ah. euh, ñu ngi koy rafetlu sëñ Umar ak sëñ Njaga yi ñu ngi nuyu sëñ kodde ah. di ko siyaare di ko xamal na ko ñoom waa Njaañ day def nañu wenn say ci seen gannaaw bu kuréelu jeewal santaane lii nañ ci loolu suba ba ngoon ñu ñaan yàlla ñu indi ren bu ñu indi lu a a wasalaam wax maanaam bi nga gannaaw ñu dégloo mboolem mbokki taalibe nga xam ne ñu jógee ci kuréel yi ñu wax ak pasteur bi lépp sant leen gërëm leen dañ ñaan suñu borom may leen kàttan ak wér ba déwén kenn ku ci nekk mën a indi am xar mu ëpp woon wala ay xar yoo xam ne yoo ëpp yi nga indi woon li ci mën ci dolli rek moo di liggéey bi rafet na waaye nag Euh, dafa am loo xam ne gannaaw ne lu bari lu dugg ci dana jaar ci samay loxo ma gis ci ñoo yóbbu ci président ak jëwriñu Sëriñ Saliou luy génnit noonu li ma gis ci li nga xam ne ay arrière dafa bari ma bëgg euh, parce que bi ñu am ci xar yi ñu góorgóorlu kuréel yi carte yi dañ ko war a fay dégg nga yi nga xam cotisation par weer kuréel bu nekk war a joxe ñeenti téeméer ci waa département loolu dañ ko war a bañ ko lobal fi mu ne am na kuréel yoo xam ne am na ñeenti junni ak ñeenti téeméer te nañ ko fay at mi passé ñu war a fay seen pour seen ziar dund bi nga xam ne dañ ko war a ak yeneen ak yeneen bari na moo tax loolu nañ buñ ko gannaawal nañ koy farataal di ko def lu ñuy def xarit loolu laaj doon doon di sant sama xol sedd na ci képp koo bëgg ku bëgg sëñ Saliou rek demal ci sëñ Codé Lo képp ku bëgg sëñ Saliou demal ci sëñ Codé Lo boo gisee sëñ gis nga sëñ Saliou te li ñuy def yàlla na ku yeewu nag euh, na sëñ Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg na sëñ Codé yàlla na fi yàgg na na na fi yàgg sëñ Saliou Mbacké yàlla te gis sëñ Saliou rek gis euh, yàlla na fi yàgg sooba tey muy sant Serigne Saliou Mbacke maanaam ñi fi nekk ñëpp sant nañ Serigne Saliou Mbacke yaakaar naa ba tax na kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sant Serigne Saliou kon nag ñoo war a wax man nag Galaye Seck laa tudd maay seen trésorier ah ma njéeme Diop mi nga xam ne mooy boroom Pastef yàlla def na mooy président kuréel <coughs> kuréel ba nag day kuréel boo xam ne bii kuréel bu Pastef la boo xam ne bii danoo takku ñoom ñëpp topp ci gannaaw Serigne Papa ko delloo ak gannaaw Ibba Samb ak ki nga xamne moy secrétaire général bi muy ma jengim mbollem mbooleem li nga xamne moy mooy fi lepp lo xamne li santane lii ko kurel sant seigne Saliou kenn bu ko ci jiitu mbaa moy nek nekk ci kanam yàggees na ne na kañ te it gërëm ngeen leen yéen ñi ñi nga xam ne fi tok ñëpp gërëm ngeen ni ndax kenn ku ci nek neena tay gi ñoo ngi sant yàlla di sant yonante bi alayhi salaam la di sant Serigne Touba di sant Serigne Saliou yaakaar naa yéen ñëpp kenn ku ne wax da lool ba tax na kon nak ñun ñi nga xamne ñoy sant Serigne Saliou Mbacké te it ñu yor fa ay ñoo xam ne ñu Pastef lañ yor fa jigéen ñoo xam ne ñi soxna Maguette Diallo moo leen jiite ah euh, euh, Fatou aada topp ci gannaawam ak ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi nga xam ne ñoo topp ci seen gannaaw ñëpp di jigéen ñoo xam ne ñu Pastef ñu am am am am dignité lañ nekk ci li ñu nekk tey dë caa deltu gannaaw muy ñoo xam ne ñi way nan lool ci seen liggéey kon nag ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant ci di leen gërëm ci biir bande bi di leen xamal ne it seen li ñu defoon lépp agsi na fii ndax kenn ku ne xam na ne xar ñu fi indi xar mu Pastef la mel ni war a mel gënaaw loolu nag soññe bi nga xam ne moo ci war a toppaat moo di kenn ku ne xam na ne danoo war a carte yi mi ngi ci gënaaw di ay arrière beneen bi ci des mooy weer yi mi ngi ci gënaaw di ay arrière beneen bi ci des mooy sukkar score lépp képp koo xam ne ki joxe woo ci woon fàttewuñ tabaski gii képp koo xam ne ki joxe ci woon am xar na la woon ne am xar war na la boo nekkee ci biir dëkk baat da nga cay toftal ak junni beneen bi ci des mooy tam xarit mi ngi dikk kenn ku ne na nga ko fàggadiku te xam ne nii ñu def ci rawante ci xar yi nañ ko def ba rawante ko ci tamxarit bi ba tamxarit gi tubaarka la kenn ku ne la nga war a joxe nga joxe ko ba joxelu ko ndax du jaagante ne buñ la sasee rek ne la tey ji joxel saaku dugub nga joxe saaku dugub daal di ca yem buñ la laa joxeel saaku dugub la ca gën mooy boo mënee joxe saaku dugub ak genn wàll da joxe saaku dugub ak genn wàll ku mën a joxe ñaari saaku dugub mën a joxe ñaari dama ne maru café kenn andiwu ko fi maru ataaya kenn andiwu ko fi kenn judduwul andi fi maru café mbaa maru ataaya bis bu nekk nga naan naan benn kaas moo la conditionné bu bis bu jotee soo naan ataaya sa bopp metti nga naan tey jii day damaa naanul ataaya sama bopp baa ngi metti te loolu dara waralu ko lul ak tàmm waaye kenn andaali fi mar wooyu tàmm googi ci boppam nag kuréel ci boppam la nga xam ne mooy ab bi mooy day jéem a tàmm def lu baax kuy def lu bax diko tamma def diko tamma def bu yagge da ngay langi ci lu bax lolé ba lu laa lu bax lolé suko def sa bop metti noné nga xamé da ngay amé maru maru café ba sa bop di metti ak maru ataaya ba sa bop di metti da ngay am maru def lu bax ba sa bop di metti ci def lu bax lolé ba tax na fep fuñ soñé ci né def lu bax rek da ngay daal di gor ci lu bax lolé ngir mën ko def ngir gën caa mën gor góorgóorlu ba nga xamé manam da ngay mëna bok ci ña nga xam ne la ñuy wax ñoy nek ño nek ci kanam té kurel bu né amna ay jambar yo xamné dañuy wax né diw ak diw dé buñ jappul won ci kurel bu kurel lu du té ñoñé lan fa yor du jàggante ne dañ ko fi ëndaale yàlla rekk leen ko jox danoo xam ne yàlla leen ko jox dañ koy delloo njukkal rek kon nag kenn ku ne na nga xam ne li la yàlla jox ak lu mu mënti rëy rëy rëy na nga ci sam sëriñ Tuubaa bu baax ndax bu woon sëriñ Tuubaa loolee doo ko am ab taalibe nag daa war a xamat bopp moo tax damaa wax ne na nanuy takku ba dëgg te fu mu mettee ñu muñ te yéeg ci kaw fas wi toog ci teg gi dugal suñuy tànk ci déggal yi te jub kocc te xëcc laab bi jël sunu yar jaarale ko ci aw yoon te xool su takk ndeer àdduna boobu loolu nag li ma ci jublu mooy taalibe ci boppam takku ba bi ma wax na takku ba dëgër te fu mu méttee na muñ yàlla moo ne inna allaha maa saabiriin ànd na maag way muñ yi kon nag foo méttee rek na a muñ te xam ne àdduna ku ci nekk da ngay muñ lu métti métti métti métti métti lu liggéey doy daay doy waar doy waar doy waar da ca gën mooy ab taalibe ci boppam moom muñ daf ko war a jiital muy fondement boo xam ne bi mënta ñàkk ci ak dundam moo di ko def fu mu toll beneen bi ci des mooy ni yéegal ci fas wi toog ci teg dugal say tànk ci digal yi teg ak digal laa waaye teggin laa ci jublu teg digal la waaye teggin laa ci jublu teggin yooyu nag ab taalibe da ko war am kon nag li mooy la gën mooy nay am teggin ndax aw fas boo ci yo toogee ci teg gi dugal say ci dégg yi da nga am équilibre waaye boo amee teggin ci àdduna da nga am équilibre jëlal laab gi aw fas boo ko bëggee jubbanti da ngay yor ak laab waaye àdduna ku ko bëggee jubbanti da ngay laabir laab laa wax fee waaye fii laabir laa ci jub kon nag koo laabir ci moom mu laabir ci yow ab taalibe la gën ci moom mooy na laabir ci digganteem ak mbokki taalibeem ba nga xam ne ku mu laabir ci moom mu laabir ci ku ci ku rek kookaat day laabir jëmale ci moom beneen bi ci des mooy na yor bi yàqu Yarbi, bi aw fas boko beugé bëggee ab yar nga yor way aduna ko bëgg da ngay am ak yar nit bolé nan ko xam-xamam duma nit dañ ko bolé alalam duma waye ko xass am yar sab yar dam ab yar nak li am solo ci aduna dama né kenn mayul sa waa kër lu upp ab yar ci aduna ci kenn ku ci nek na nga joggé fi bo fi joggé na nga xalat né loolu ci bopam nek na lo xamni ak la ci bo démé ci sa kër ku melne man ak sama morom yépp ñu xam dañu wara yar soxna yi yar gone yi ndax wolof kat dafa wax ne soo amee sa soxna yàqal soo amee sa doom yaral waaye man damaa wax ne soo amee sa doom yaral soo amee sa soxna yaral ndax yàq moom baaxul ci dara ndax yàq li muy bon bon bon bon ki koy ki koy ki koy def la yàlla gën a bañ kon nag yàq moom baaxul ci dara man li wér mooy boo amee sa soxna daal yaral boo amee sa doom it yaral yar moom li wér mooy koo ko def ku ne li wér mooy jox ko loo xam ne ci àdduna mënatoo ko may lu ko ëpp bi ci des mooy jubal kocc aw fas boo ci nekkee te jub kocc li wér mooy doo daanu waaye àddunaat boo ci nekkee boo jubee doo daanu jaarale fasu ci aw yoon yoon wi ma waxi yoon wi nga xam ne mooy adduna bi ki ci war a jaar mooy yoon ihdina siraatul mustaqim loolu yi ci boppam bu ma la waxee lool ba pare ne la xoolal sab takkandeer addunaa ngoog ab takkandeer boo ko jàppee jàppoo dara boo taxawoon sab takkandeer féete la 2 mètres boo dawee nga yaakaar ne boo dawee ba tolloog tolloog 5 mètres da nga ko romb boo dawee ba tolloog 5 mètres da lay féete waat 2 mètres ci kanam rek loolee ci boppam kon mooy adduna adduna ku dàq sab takkandeer ngay daw a daw a daw ba sonn waaye tey bis bu ne ab jéego la wu ne ab at mu ne ab gaar bis bu ne ab jéego la weer wu ne ab at mu ne ab gaar te kenn ku ci nekk gaar ba ngay gaare boo ci àggee gaar te port bi man xam moom faral du wàcc kon nag na wér ñuy jëkkalante fii lii ñuy ëppalante ci Serigne li wér moom moom la ñuy wàccee suñu gaar yooyu nga xam ne moom la ñu a ngay wàcc sa bagage yi ngay wàccee mooy li ngay ëppalante ci Serigne Touba ne xam na ne maam maam Cheikh Mbaye day nitu yàlla lu wér moom la sëñ Sam Mbacke euh, sëñ sëñ Sam Mbaye nett nettali na ci kër maam Cheikh Mbaye loo xam ne lii Baara Ndiaye ngi nii man na maa seere ci li may wax dafa wax ne maam Cheikh Mbaye mag ñi dem nañ ci tool yi di ko bayal di ko bayal di ko bayal ba ngoon ñu wàcc si mu leen di ñaanal waaye laata mu leen di ñaanal daf leen a wax ne jëf ju ngeen mës a jëf euh, ci seen digganteeg suñu borom tabaaraka ko taala jii jëf rek la leen ci yàlla mës sa nangu maanaam mu julli yeeg koor yeeg yi ñu war a def yëpp yi ci defoon yëpp yëpp yëpp mu ne leen jëf ju baax ji ngeen ma defal képp la yàlla masa nangu ci li ngeen masa def kon nag liggéeyal koo xam ne kii nitu yàlla la mooy ay bagage yi nga xam ne moom la ñuy wàccee ci port bi ma xeew kon nag na leen wóor ne xar yii ñuy indi fii ak sukkar score si ñuy indi fii ak tamxarit yi ñuy indi fii ak yii ñu leen di laaj yëpp lu muy bari bari bari bari bari kenn ku ne xam na ne suñ papa ko di loo jéemewul ko ci poosam kenn ku ne kenn mosu ko kenn ku ne nga dem ne ko dimbali ma ci nangam kenn mosu ko ci dimbalee dara lii may wax bu am na mbooloo maa ngi may dégg su fekkee ne am na kenn ku a ma ko ci dimbalee dara de kenn ku ne mas na maa dimbali suñ papa ko loo dara te kenn ku ne dem nga ci moom ne ko dimbali ma ci nangam lu boni boni donte ak ñaan it da nga ko ne dimbali ma ñaanal ma tey kon nag li wér mooy kon nanu xam ne sëriñ Papa Codé Lo fi mu nu jëme fu baax la waaye jëme munu fenn foo xam ne fii fooy am ay tolof tolof kon nag nanu gën a góorgóorlu te gën a gën a jàpp sunu suñuy biir ak biti te it damay wax ne c'est pas normal jooju ñu daan wax ci rajo euh, Dunia su fekkoon ne tey jii man téléphoné waan naa danaa ne c'est pas normal ci que nit ki bés mu jaagar jaagar yi dem ci jàkka wàññi ko waat te bu deewee ñu dajal ay waa këram ci biir leen jàngalu ni sango fara kon nag loolu c'est pas normal nit ñi nanu xam ne li nu fi tegee mooy ñaari raa njaboot gi da ngay bañ ba da ngay da bañ ci ñoom ñaari raay yii bu nu réer bu nu róor tey koo bañ mu réer ku ne da ko jàngal koo bañ mu róor ku ne da nga fexe ba bu mu tooñ tey li wér mooy njàng ma ca gën nag mooy jàngalum diine waaye kenn koo ne tey ji jàngal sa waa kër alxuraan mu ne la alxuraan moom xalaatuma ko moom koy dama leen yóbbu jardin d'enfants bu yóbbu loolu pare ma yóbbu leen école nanu gën a góorgóorlu te xam ne Serigne Touba mii nga xam woon ci waa kër yi ñu mooy dugal leen ci daaray alxuraan yi ñu jàng a jaar yar yar njabot bi yar talib bi kenn ku ci nek la nga waroon def def loolu ko la nga man mu def loolu ko yar ak ay teggin ak i masla ak djubo ak bëggante ci bok lepp moy moy li nga xam mom la ñu serigne ci digal mom moy li nga xam mom la wara def ah wax ji nag gudd na te it sama xel neexu te yoroon na maa am yenen wax yo xam xeyna jombul ne man na ko jox waye wax bu ma bété rek day xaw démé no noo ni xawna doy ra ngeen bal ma wax nak lepp loo xam ne di ay rek rek la yu ma duggal ci biir ngeen bal ma wax assalamu alaykum

moo koy euh, rëdd li jëm ci wàllu euh, tabaski li ñu santaane mooy euh, yeew am xar defar ko ba bu waxtu wa jotee ñu mën ko jébbale si waaye li nga xam ne mooy junni bañ ca daa def loolu moom teggi ko na léegi waaw léegi daal am xar la a ah, jongante bi nag mu nga nekk ci fexe ba gën a rëyum xar gën koo suurle ah bu ak jàmm nag moom ah xam naa ne danañ dana bari lool xar yu yu rëy waaw. ak sa kon nag euh, salaamaaleykum sëñ bi. waaw waaw ah, dama bëggoon nga wax ma sa tur. waaw man ak euh, ban kuréel nga bokk. Cheikh ak euh, mbir miit noo ko gisee. bokk ci kuréelu hmm. tey jii nag. waaw ah. di alxames. tolloog ñaari fan ci weeru tabaski bi. Hmm. ñëw fii ci kër sëñ Saliou. ñu ñëw ko lu toll ci juróom fukki xar ak juróom. Hmm. muy xar yoo xam ne sëñ bi xool na ko bëgg. kontaan ci wax ci ay wax. ndax. ñoom xeeboon nañ ko lool waaye sëñ bi naw na ko ndax nee na ndax ñu nee na ndax yéen a indi xar yëpp sëriñ bi ne ko waaw mu dugg ci biir jox ñu laax bi ñu di ci barkeelu laax bi moo tax ñu foog ci lépp loo xam ne lii waaye aaja noo ko wala muy tawat wala muy jàngoro wala muy yitte ju doomu aadama yitte boobu bu ñu cafee boole ko la muy toog ak togg def ko yàlla mën na ko tàggale ak la mu ragal ak lu mu mën a doon ndax Serigne Touba moo mel noonu ndax Serigne Touba wax nañ ne bi mu nekkee ci njaareem taalibe yi wër ko magi taalibe yooyu nga xam ne ñoom ñoo yàggoon ak moom mu yaraloon leen boppam te ñuy te ñuy nit yi baati toog na yoroon bant yor ko mel na lu cay sekk wéetu ba mu demee ba sànni bant ba dañ koo jëkkante kenn ku ne bëgg caa jëkk morom ba kenn yor ko ko ko yoroon da koo mu ñëw mu ne mu laaj ko ko mu jox ko mu ne ko bi nga ko yoragul boobu bant dong la woon waaye bi nga ko sànnee bi ngeen ko njëkkantee bi ngeen dawee jëm ci li ngeen foog lépp ma nga moo tax ba tax na Serigne Touba noonu la mel lépp loo ca foog rek lépp loo ca foog sa xel ndax xel du ca mënta mu nekk ak li ne ci moom lépp lépp lépp lépp ni mënu koo xam waaye nag li ñu li nga ko mën a tënkal gàttal la ko mooy Serigne moom loo ca ma nga ca loolu rek mooy gàttal bi loo ca foog loo ca ma nga li ko waral te li def loolu mooy lii mooy Serigne Touba dafa jaar ci yoon boo xam ni kenn jaaru ci hmm. liggéeyal yàlla liggéeyal boo xam ni kenn musu ko liggéeyal hmm. yàlla defal ko loo xam ni musu ko defal kenn te du ko defal kenn te loolee moo tax ba fii mu toll ku ko liggéeyal lu mu tudd daal di jëriñ ci liggéey ba hmm. ndax jaamu yàlla bu rëy yëg la nga gën a naw lu ne liggéeyal Serigne Touba moo ko gën a moo ko gën a ëpp doole ndax di Serigne Touba day denc boo xam ne bii du yàqu ndax lu ñu defar ba noppi la looy defar ba ba kàcce ko rek bokkul ak li ngay tàmbali te xamoo dana baax xamoo du baax. te ko. baaxal na ko ba lu ko waaye defal la naa nangu mën naa bañ a nangu. ba tax na yi gën a jaamu yàlla gën a ci jaamu yàlla mooy liggéey sëñ Tuubaa ndax day lu noppi duutu yàqu. leneen la ca des yaa ngi jaamu xamoo yàlla dana ko nangu. xamoo dana baax xamoo du baax te lii na ba noppi. Ah. moo tax boo ko liggéeyalee rek liggéey da ngay daal di defaru sa mbir defaru. waaw moo tax ñu taxaw ci sam kuréelu jeewal bi ñu di ko liggéeyee nii bu tabaski ñëwee ñu indi ñu indi ñu indi ay tabaski mm-hmm. bu koor ñëwee ñu indi suukar mm-hmm. bu tam xarit ñëwee ñu indi cere eh, dugub tam xarit yooyu yëpp ñu di ko dajeel di ko def di ko indi mm-hmm. ndax di ñu sàkku ngërëmal Serigne Touba lool daal mooy li nga xam ni moom laa ci doon sànni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf bi sant nañ la baax wax bi rafet na ah am na talibé te it kontaan nañ ci lool ah ñu la doon laaj nag yow wàllu jeewal wi maanaam lan nga ci yore daal ak euh, branche bi nga yore noo ko gisee. waaw branche dox wala bi nga yore ci jeewal hmm. ji. Hmm. mooy branche bi ñuy wax culture maanaam jàngale xam-xam ak taalibe hmm. ak yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba doon yare loolu mooy li nga xam ne mooy doxin wi nga xam ne moom ci lañ bëgg a tënku dëppale ko li li nga xam ni mooy doxin mooy li ñuy bëgg fas yéene di ko doxal te ne <coughs> kon nag léegi ci biir loolu waaw laaj bi nga xam ne moom lañ ci euh, dolliwaat moo di sëriñ bi mm-hmm. euh, wax na ne magi taalibe yi wax nañ ne daana dénk njaboot gi ne leen nanu sàmmonte ak njaboot gi te it euh, borom kër bu ne ñaari la rëddal ci sa njaboot njaboot gi nga xam ne moom nga yor moo di réer ak róor mm-hmm. yow nag réer ak róor noo ko mën a faram-fàccee ci biir bande bi waaw réer ak róor mm-hmm. ñu ko xamee ndax yonent loolu addis la ndax yonent bi dafa wax ne képp ku ne ab sàmm nga te kenn ku ne la doon sàmm dangay ne ko laaj ba léegi kon njëm borom kër gi sàmm la ci biir këram sëriñ bi ab sàmm la ci taalibe yi chef de quartier bi sàmm la ci quartier bi muy sàmm kon réer ni nga ci leer ci tax a mucc mooy jàng boo jàngee xam li la war tuutoo réer te buñ la jàngee moo tax Sëriñ Tuubaa boole woon jàngale ak tarbiya ndax tarbiya mooy yar ndax nit ki boo ko yaree du ruur mu xam fi mu war a yem xam li mu war a def xam li war a bàyyi du turóor fa mu wata bu du fa rek moo tax boo ne da suñ tubaab di boole ak jàngale waaw tarbiya ak taraxiya ak jàngale bu ko defee nit ki bu noonu ndax nit bu ko jàngalee te yaruñu ko mm. seytaane lay doon mm, waaye nit ki bu ñu ko yoree rek te jàngaluñ ko day yomb a nax ndax du yeewu moo tax Sëriñ Tuubaa da daan boole jàngale ak yar jàngale nit ki ba mu yeewu ba xam li ko yar ko ci ay cëram yar xolam tarbiye ko yar bëggloo ko sunna bëggloo ko jaamu yàlla toppaloo ko ndigal yàlla boole ko yaru boole ko am teggin di nangoo jaamu noonu la Sëriñ Tuubaa daan muy ni yonent bi tefoon saabaam yëpp yoon ba mu leen jaarale woon ci lay jaarale mooy yoonu murit saadix moo tax ñuy dëggal di sàkku li nga xam ne li mooy ngërëmal yàlla te di ko sàkkoo ni ko sëriñ bi santaane muy topp suñu hmm. loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu fas yéene doxe waaw ah. ah, kon day maanaam li ñu ci dolli war sax moo di ndax bukki sax ban ku ne mbaam ma dee na waaw ah dafa ne way wi amul daaneel hmm. ñu ne ko nag dee na ci tool bàyyi diw mu ne waaw koy maa ngi soog amul daaneel hmm. maanaam mu leer daal la bëggul waaw ba lii tamit ci leeral googu dama ciy sàkku ne ndax dama dégg nga ne njàngale ah te nit ñi léegi danoo fabu seen euh, doom yëpp daal xalaat ne rek euh, dugal ko ci naa d'enfant boo ca génnee yóbbu ko ca école ba mu jàng hmm. gannaaw gi bu fa jógee dem CC bu jógee dem dem lycée bu jógee dem université bu pare rek jeex na yooyu daal réussir ci njàng moom la yaakaar ne moo moo di njàng ci àdduna waaw laaj nag ba xam yow nag maanaam loolu tamit ba tey. waaw jàng woowu sax day ak jàng hmm. la. Hmm. ndax xam-xam la te xam-xam bu mu doon xam li mu mën doon xam boo gën réere ko. Hmm. doonte njabar la. waaye nag yow la yi nga xam ne moom lañ jàppee jàngale te xam-xam yi moom la jàpp xam-xam lañ. mooy xam-xamu diine. mooy jàng lislaam jàng tawhid jàng feq jàng tasawuf boole ko fexe xam alxuraan xam lañ ci maanaaya. boole ko di topp yàlla di jaamu yàlla te teg ko ci sunna bu loolu lañ jublu ci jàng woowu beneen jàng beneen xam-xam bi nag baax na ndax moom lañu jëriñoo ci àdduna te comme àdduna yàlla bëggagul mu ruur bëggagul mu gent fokk ñu di ko dundal hmm. li koy dundal nag mooy xam-xam waaye te xam-xam yépp nag mi ngi bala ci biir alxuraan ndax boo demee ci masaalika ñaan nga dégg suñ tubaa hmm. ah, moom alxuraan moom moom alxuraan matatu kulli ilmi fi asi dunya bi xawli xarim fii ci xam-xam yi ci àdduna yëpp alxuraan alxuraan mooy ndey ci lañ ko tànqee. waaw maddatu kulli ilmi mooy ndabal bépp xam-xam. góoli bu mag bi nga xam ne ci lañ tibbee war ndab yu ndaw yi kooku mooy alxuraan kon dooram li xam-xam wàllu ci xam wàllu science nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci àdduna bi lépp mi ngi génn ci alxuraan. te loolu lépp Serigne Touba sàgganul woon ci genn wàll ndax Serigne Touba daan na wut ay ministre ay maçon ñu ci ne ñuy liggéey te ñëpp ci biir këram lañ leen di formé mboolem wàllu adduna bi li ñu daan def ci technique lépp suñ tubaab dafa am ay techniciens yoo xam ni moo leen di former yaral leen boppam ñu ne ci biir kër gi di liggéey loola. Hmm. kon xam-xam yooyu euh, ñu di ko def. Hmm. waaye nag li gën a am solo nga xam ne mooy moo gi mooy liggéey liy defar ëllëg. Hmm. te mooy xam-xam bi nga xam ni moom lañ soxla ëllëg. mooy xam-xam bi nga xam ne moom lañ laaj ëllëg ci bàmmeel. mooy xam-xam bi nga xam ne moo jëriñ ëllëg fa àlaaxira waaw waaw léegi day wax dëgg yàlla laaj yi sax bari na lool waaye nag maanaam ci branche bi nga féete moo tax laaj bi demee noonu waaw ah, amaat na beneen laaj boo xam ne bi bëgg naa ko cee dolliwaat mu di xam nga man sax waxoon naa léegi ci bànd bi ba wax ne daal nit ëpp mayul lu ëpp doole ak njabootam maanaam lu ëpp ab yar ci ak njabootam daal nit mayu ko njabootam hmm. ab yar daal mooy li nga xam ne lu am solo la lool ci loo xam ne lii lu borom kër may war may ak njabootam hmm. na yar boobu ma bëggoon nag ni nga xamee ne hmm. noonu ngeen ko jànge yéen borom xam yi ndax dama dégg wolof di wax ne soo amee sa jabar yàqal soo amee sa doom yaral man nag ma wax ne soo amee sa jabar yaral boo amee sa doom yaral ndax loo yar lu ne mm. dootu am ay gàkk-gàkk tey it mën naa bañ a kii waaye nag loo yàq rek mu daal di xaw a doy waar ndax yàq moom bon na lool te li muy bon bon xam naa a bañ na yar boobu daal ma bëggoon nag noonu yaakaar ne noonu a yare soxna yeeg gone yeeg ñi ci kër daal noonu leen war a yare ndax am na ci ñoo xam ne ne soxna si moo war a yar gone yi ci kër gi ah xam-xam gën ma bëggoon nag nga faram-fàcce ci bànd bi loo xam a am solo te gën ci am solo ci yar bi mooy sa bopp hmm. yow borom njaboot bi nga xam ne yaay borom kër gi di exemple bi yaa jëkk a yaroo nga jub yar sa bopp defar sa bopp ba defar ba mel merekaan wax wi dañ lay roy bu ko defee lañ ko ne gis mm. nga di ko def mm. di ko wax mm. muy lu jub loola la daal di jàpp ne mooy li ah waaye bu fekkee da ngaa bëgg a tere gone yi tux tey tux tere leen saaga tey saaga yooyu mboolem loo xam ne lu ñaaw la nga di leen ko tere te ñu gis nga di ko def loola boobu mënta moo loo leen yar yar yar du du tax mu nekk yar ndax yaru mën a dóor ak mën a saaga ak mën a gëdd tax yar yar li ci gën yow mi yaru ndax boo déggee seexal mu rab bi day sëriñ boo xam ne dafa defar boppam jim nga xam ne jëmmi sëriñ bi ci boppam mooy yar nga xam ne du la woo sax ne la defal nangam defal nangam defal nangam waaye nit ki bu fekkente ne boo doon def lu ñaaw tey boo ko séenee mu ñëw nga nëbb ko kon kooka na mu yare boppam na mu defaroo ngay gis mu di ko def nga xool ci moom doo ko fekk muy wax lu ñaaw wala mu toog toogeen wu ñaaw wala muy def loo xam ne lu lu wuuteeg lu ñu lu ñu lu ñu la hmm. bu ko defee loolee ngay gis di ko def hmm. da daal bu yàggee da ngay daal di jël ca loola bu da ngay mujj ba mel ne moom noonu la Serigne Touba daal di yar hmm. waaw loolu mooy yar bi nga xam ne moo gën moo gën yaru jàngale ndax boo déggee ñu ne Serigne Touba da daan jàngale ba mujj mu ne jàngalee tuma képp koo xamee ki da ngaa namm lu ñu namm da ngay ñëw dox ni ñu doxee kon li ñu namm mooy jëm ci yàlla ndax moo wax ne isul muridu laa yuridu abada xayru rida rahmaani ay so xasada ndax murid daal mooy ki nga xam ne nëmbul lu dul ngërëmal yàlla te comme moom nam lim na ma moo yàlla te ci yàlla la jëm dox jëm ci yàlla mu daal ne nag moom jàngi leetul a mooy ki ku képp koo xam ne ki da ngaa nam lu ñu nam rek ñu dox ñëwal dox ñuy doxee te mooy dox jëm ci yàlla du ko defee nga topp ci gannaaw di dox li muy doxee maanaam di xool li muy def waaw loolu moom tubaab sax wax na ko ndax di dégg li muy wax dafa wax ne la la théorie waaw c'est waaw maanaam hmm. xam-xam boobu gis nga ko ni mu ko waxee ci wàllu tubaab ndax euh, mooy li nga xam ne mooy base connaissance maanaam lépp lu ñu war a xam rek théorie mooy base ba tax na pratique bi mu ne c'est la finalité maanaam te pratique nag booba sëriñ bi xam nga jàngale foofu ne leen kaay jëf nag waaw léegi léegi bàyyi bàyyi de wax rek waaye tey ji nag jëf moo xee kon nag nanu jëf ba tax na kon nag ñu lay sant di la gërëm ci leeral yi nga xam ne leeral nga ko ah xalaat ji xóot yi ci biir dugal yi hmm. nanga nu ko jéggal ah te xam ne dañ koo def rek ngir def ko archive ci biir bande bi ah ñu jàll ko ci sañ Mbaye Dior Diop mi nga xam ne mooyam la ñuy wax Mbaye Dior Jeewal te muy liggéey liggéey bu toll ne ah topp ci gannaaw sëñ papa ko delloo ah waxtu wu mu ko woowee téléphoné ko mu ñëw ci saa saasi te du ci am minute ak minute may laaj nag moom liggéey boobu noonu lu mu ci nam kon nag sañ bi liggéey bi loo ci nam ak loo ci fas asalaamaaleykum <coughs> fas yéene nekk ci may faatu rek maa ngi ñaan nag yàlla sëñ Saliou mbakke yal na ko fi yàggal ak wér loolu wée sëñ Codé mii hmm. yal na ko fi yàlla yàggal guddal aw fanam ci ànd ko wér ak Iba Samb mii nga xam ne moo ne kanam ak ñi nga xam ne ñoo ngank jeewal ñëpp waaye suñu mbir mii nga xam ne tee nekk mooy mooy mbirum jeewal mii hmm. ñàkk cee nekk wóorul wóorut daal xel nag kuy ab taalibe tey nit war ngaa xam ne ñàkk ca bokk wóoru te nekk te te jege jege bu jege ko ndaxte lii day liggéey la bu rafet te gannaaw loolu wéyee nag ñoo ngi sant gannaaw yàlla nag sëñ ko dem yi du ba tamit waaye ñëpp war naa xam ne gannaaw yàlla mooma ndaxte noonu dañoo juddoon sax fekkoon suñuy bàyyi ci sëñ Touba nu nekk ci xaj na lan mën a liiw noo ko ca woon waaye nag àndandoo bii day mosuñu ko def ci fii la mas a amee ci moom nii ku yëpp wax xam nañ ko ko nangu ak ko nanguwul kon nag loolu mbir la moo xam ne ñëpp war na ko ci bokk sant jàppale ko ñaanal ko yàlla mu gudd fan fan bu gudd gudd gudd ak wér yàlla na ko def ci barke Serigne Touba defal ko mboolem jullit yëpp defal ko mboolem ñekk jeewal ñëpp te góor góorgóorlu nag te xam ne Serigne Touba yi moom wax dëgg yàlla wàccoo nag nu wàccoo nag nu ci des kon lu man rek nan ko def man de maa ngi ñaan ci yàlla yoon jëm sëñ Tuubaa lu ci man rek ren rek bu déwénee yàlla mën lu ko ak kenn ku ci nekk te lim ci man di ko def itam yàlla na yàlla yàlla ko yàlla nangu ci barke yonent ci barke sëñ Tuubaa loolu rek laa ci doon wax jërëjëf sant nañ la bu baax gërëm nañ la te it euh, sa pastef it ñëpp seede nañ ko ah, ba tax na li ngay def te euh, li ñuy wax ne jëkkante jëm ci sëriñ Tuubaa rek am solo ndax damay wax ne bi yobal xam moom li ñu koy frod du wàcc te it bagage ni ñuy wàccee yépp mooy li nga xam momi ni la jëf ci mbiri Serigne Touba ndax kenn ko ne xam ne euh, ki nga moy khalifa mam Cheikh Ahmad Kabir Mbaye muy mam euh, serigne Sambay dafa waxone ne liggéey bi nga xam mom la magni mam Cheikh Ahmad Kabir Mbaye ba nu dellu see ba mu leen Jep ñaanal daf leen wax ne jëpp bépp jëf bu ngeen masaan jëf bu ne sun borom mu ci nangul len dudul ju baax ji ngeen ma defal tay rek la mas yalla ma sa ci bi ngeen def ba tax na kon nag ñun suñu jëf yi ñun jëf yëpp ci suñu gannaaw mel na ne kon jëfi Serigne Touba yii daal am nañ ci yaakaar ah. jëf yi ñuy jëfal Serigne Touba di góorgóorlu di ko jëfal ci Serigne Touba rek te yàlla doomu tax am nañ ci yaakaar bu baax te it yow kenn ku ne xam na ne sa oto bi foo foo yëpp foo xam ne bi ab taalibe soxla na la fa woo la fa donte waxuma la sax ci biir liggéey bi waaye lu dul liggéey bi sax ab taalibe bu la soxla woo la rek nga daal di nekk disposition defar ko li ko war a lépp kon nag yàlla mi nga xam ne moo mën a fay yàlla na la yàlla fay ci barke borom Touba ah kon nag sëñ bi ñoo ngi ci alxames tey fukki fan euh, ci weeru euh, avril 1997 sama montre ci biir caméra bi nekk 12 heures 48 xaw ma nag am na heure am ah te fekke nag muccul ma ne ko te fekkee muccul ma fekk la nag ci biir néeg bi te xaw ma ah sa tur xaw ma noo demee ak euh, mbir mi ah te ma fekk nga toog ak sunu jëwriñ yi nga xam ne ñooy mooy sëriñ Papa Codé ak sëriñ Iba Samb mi ak sëñ Cheikh Lo ak sëñ laaj nag sa tur ak sa sant ak foo dëkk ak noo demee ci biir béréb bi ak daal noo gisee liggéey. sëñ Moustapha Touré di laa tudd. waaw. Touba Mbacke géej bi laa juddoo. Hmm. ba sëñ Touba nekk njëriñ bi. Hmm. di yow ñuy gor si Touba. Hmm. sama baay ci la xandoo. est-ce que. fii ci Darou Minam. fi la daal daal daal daal jëkk ji nekkoon. fi la fi la mbéy ñetti téeméeri bëri yi yi jaay ñu wële ca Louga. di gannaaw boobu sëñ Tuubaa gisee mu ne ko kooku mooy wël yu wala wala sama gerte ga loolu la ko sëñ Tuubaa wax waaw fekk dañ ko taggu sëñ Tuubaa sa baay moo doon kan moom sëñ Seex Tuure sëñ Seex Tuure mooy sama yaay fii nag noo fi ci béréb bi bi maa ngi ci sëriñ bi sëñ Fallu Mbàkke ci la mu ñëw na nga ñëw ci toog di loolu mii dafay saa mu xaar di sama mooy tax ma ñëw fi moom fi toog ah, mm, te di ko sant itam nag te di ko gërëm te ñaan suñu doon def ko wér bu mm. yàgg fii te yàgg na fee fekk te yàgg na fekk ku baax sant na la bu baax gërëm gërëm yàlla na la fi yàlla yàggal bu baax baax te yàlla nangu la taay bi yëpp waakan kon nag ñu dem ci jëwriñ yi nga xam ne <laughs> moo jiitee ak li nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne moom la ñuy kuréel yi jeewal yi mm. ah di ay kuréel yoo xam ne yi yàlla def na ñu am ci àll bi ak ci biir dëkk bi ci biir Louga. Hmm. am fukki kuréel ak juróom ci biir Louga ak àll bi loo xam ne nii xamatuma sax lim bi ñaata la waaye mel na ne lépp daal téeméeri kuréel ak nangam la. Hmm. te Ibba Samb mii nga xam ne yàlla def na moo nekk ci kanamu caméra bi tey moo leen jiite ndax mooy ki nga xam ne mooy président bi kon nag sëñ Ibba mbooloo maa ngi topp sa gannaaw topp ci gannaaw sëñ Papa ko delloo indi nañ tey jii liggéey bi ah jébbal nañ ko sëñ Saliou Mbacke yaa ngi toog fii ci wetu sa jëwriñ Euh, muy sëñ papa ko déglu kon nag mbir mi noo ko gisee liggéey bi daal lu ci sa xalaat. bisimilah bisimilah ñu ngi si taal euh, <coughs> jërëjëf euh, sëriñ lii nga ma laaj lu ma sawar a bunt tontu la ubbi ko ndax liggéey bii ñu sumb day liggéey bu rëy ah bala may dugg ci waxtaan nag damay sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dollee fedd suñu njëbbal ci Serigne Touba baax di ko sant moom mi nga xam ne moo ñu baaxee ba tax ñu nekk murid waaw di sant sëñ Cheikh Saliou Mbacke yàgg fi lool ci ànd ak wér moom njabootu di sant itam sunu jëwriñ ji muy euh, sëñ Codé mi euh, nga xam ne yoon wii moo ñu ko xalal euh, rëddal ñu ko ba képp kuy di taalibe ca nekk njàmbur wax dëgg boo duggee ci yoon bi rek mel yàlla yaa ngi yaa ngi ci yoon siraatal mustaqim ñu ngi ci loolu itam maa ngi sant itam mbooleem euh, kuréelu jeewal yépp yëpp yi nekk biir Louga ak it yi nekk ci département bi ak yi nekk ci région bi yëpp ndax tubaab Mbacke gii ñu toog muy dëkk bu sell muy dëkk bu tedd bu sell bi nga xam ni euh, mooy dëkku xéewal dëkku texe ñaari kuréelu jeewal a ngi fi kon jeewal toll na foo xam ne léegi man naa wax ni bit léegi bit àddina bépp xam nañu magalu Jeewal euh, li ma ci wax rek mooy ñu gën a dollee góorgóorlu ndax Cheikh Saliou Mbacké mii day daf ñoo mas a wax ni yéen dañ ñu ma liggéeyloo ngeen fasan naa yéen ko la bu leen fi gëj liggéey boobu nag waxuñu ban façon liggéey la ba ñu demee dañu sëñ côté euh, tëralal façon liggéey ñu jaar ci la ci jëkk mooy bu weeru koor jotee ñu euh, dajale ñaq taalibe yi ñu jënd ko suukar jënd ko suukar dugale ko su su ci koor gi ñu fab euh, dugal ko ci koor sëñ Tuubaa ndax nun baaxoon nañu li ñuy woore woor dafa jafe li ci sëñ bi ci yàlla santaane kenn mënu mën naa wax ne sëñ Tuubaa képp rek moo mën a woor ah ñun ñi ci des nag lu yàq suñu koor euh, bari na ak gàll ndax gàllankooru jamono ji sëñ koor nag dël ñu ku ci nekk dana jël ci saw ñu jël ko jënd suukar dugal ko ci kooram sëñ dugal ko ci kooram sëñ Tuubaa ndax yàlla nangul ñu suñu koor yëpp bu ñu jaar def ci loolu ren jii andi nañu ñaar fukki saaku suukar ak ñaar loolu benn région mosu koo def waaw bañ ci jógee tabaski mu tudd loolu ñu tabaski daaw indi woon nañ ñeent fukki xal ak ñaar ren indi nañ juróom fukki xar ak juróom ca bu soobee yàlla bu déwénee mm. téeméeri xar daañu ko indi wala lu ko ah façon liggéey yooyu su ko koor tëbaski tamxarit gàmmu màggal lépp lu am ci xew-xew diine jeewal dana laxasu boolee seen bopp boole seen xalaat boole seen seen xalaat seen lépp ak seen ñaq seen doole indi teer si ci kanamu Cheikh Saliou Mbacké bi nga xam ne mooy borom jamono tey jii. dugal ko ci liggéeyu lislaam boobu. kon lépp liggéey boo xam ne comme li sëñ mbay Diop wax léegi dëgg la képp koo xam ne yaa ngi njàmbur damaa jëlee njàmbur wante bépp taalib boo xam ne yaa ngi ci Sénégal dëgg liggéey bii nga xam ne waa jeewal la nga koy def. foo mënti nekk boo nekkee Amérique sax jeewal ump umpatul kenn ndax Sëñ Tuubaa lépp jeewal na ko amee mm, fa la fa la fa la fa la fa la fa la dagge buumi njaam lislaam fa la dagge buumi njaam nit ku ñuul fa la gën lislaam fa la lépp daal fa la ko amee kon ku dib taalibe ku dib jullit war amee nga njukkal jeewal kon bu liggéey jeewal foo ko mën a dégg foo mën a dégg boo foo mënti nekk boo ko dee war ngaa mën a yónnee sa sa barke ñu dugal la ko ci kon ñàkk cee yëngatul comme li Mbaye di wax ñàkk cee dugg boo wóorul waaw damaa jëleli Louga de wante ñàkk foo ti nekk du taalibe ñàkk cee dugg wóorul ndax tey jii Cheikh Saliou Mbacke bi wàccee ci oto yi ba ci xar comme ni ko sëñ Cheikh loo waxee mun li yëpp yéen a ko fennee de ñu ne ko waa Mbacke kon koo xam nga foofu rek la la mbir ma sottee woon foofu la mbir ma sottee woon kon ku ci duggul yaa ngi ci yaa ngi dugg ci leneen ca loo mën a dugg dugg ci li moo ko gën a la ci des ah, comme daf ñu ne dama leen a liggéey dañ leen a leen a liggéeyloo woon ca noonu jeewal jeewal moom mooy ndeyu lépp mooy ndeyu lépp ca li ñu fas yéene mooy jeewal ñu def ko dëkk ni Touba Mbàkke gi tëdd ci wàllu saay dañ ko war a defaral jeewal dañ ko war defar jeewal ba jeewal nekk ab dëkk hmm. ndax niñ ko tëralee ni plan directeur Touba tëddee noonu lañ ko noonu lañ ko bëgg a tëralee. projet yu rëy rëy rëy fa am ba tax na bëgg nañ faa def jumaa ju rëy def penc moo xam ne moo wër jumaa ji def li wër mi muy kër doomu sëñ Touba yi nga xam ne ñoo ñoo mooy kër mooy doomi sëñ Touba ñu bu daggalee na fa ay kër ñu wër penc ma comme ni ñu ni ñu wëree pencum Touba yi bu ñu fa jógee kuréelu dëkk ba muy fukk juróom kuréel boo ñu ñu daggal la sa sa kër région yi fukki région yi ku ñu daggal sa kër bu koy matee taalibe bu nekk nga ñëw ñu daggal ñu daggal sa sa parcelle nga defal ndax dañu bëgg bu nekk dëkk mu am jumaa am forage am marché am jàng daaray kaami am lépp loo xam ne Touba gi am na ko ñu ñu ñu am fa loolu euh, buñ ci boolee suñu bopp boole suñu xam boole suñu xalaat boole suñu doon lépp daañu ko mën a sotti liggéey bi ñu lees yëpp nag rafet na wante man li ma ci gën a yitteel li ma ci gën a yitteel feeg defaguñu loolu ba defa tëli ba jeewal ami làmp am goudron fépp robinet yi sotti fu nekk kon suñu liggéey des na ak guñ ci liggéey bi dafa mel dañuy door tàmbali jàmbaar lañu loolu ñëpp jàmbaar lañu wante li fekk ak guñu foofu jeewal nekk dëkk ba làmp yaak goudron ba jumaa jann lépp daaree caméra lépp taxaw kër doomu kër Sëriñ Tuubaa lépp taxaw ñu ni dëkk Tuubaa gi jeewal gi mooy ñaareelu dëkk Sëriñ Tuubaa kon fekk ak guñ foofa ba toxal maa nga jeewal lépp di ko defee ca jeewal àgg des des nañu liggéey bu baree baree bare li ñuy may lool nag ñu mën fa àgg ñu boole suñu bopp yéenante jàmm bëggante soppante ca boole suñu loo loolu moo ñu may loolu moo leen moo ñu may may ndam loolu kon ñu gën a góorgóorlu ci loolu ci loolu lii sëñ bi def nag ab lii yëpp yéen a ko bind ab soññe la ab soññe na mhm. kon bu ñu demee ñun ku fi jóge boo demee ci sa dëkk soññ war ngaa nekk soññ ci sa morom sama nga dëkkal ak soñ sa morom dëkk ba nga dendal waaw kon man ñu ci dool dama lay xam xamna li may wax rek moy dama lay wax nga soññewaat ci xarit tabaski comme ni galay laaj doon laaj dama lay laaj ma xari ne ko gisee ndax nu ngi mën def ba mu déwé ni ñu mën a indi lu ma téeméer xar wala lool nga seet no xamni ni dal daal xamni yoon wax bi dang koy wax ndax buñ ci talibi yi jaare ñu mën euh tokkel am xari bari yoo xamni dañ ko mën waaw soobee yàlla. Mm-hmm. Ah, loolu wax nga dëgg. ndax sax daf ci am kuréel yoo xamee ni dafa dañoo am tardement ndax buñ tardewul woon ah. kuréel yu bari seen i yëgu ñu ñëw bi ndax itam li ma waxoon rek jëwriñ yi buñ buñ ñu tànnee ñu nekk jëw ñu nekk jëwriñ ndax kuréel yi ñu ko daggee ci Louga muy fukki kuréel ak juróom kuréel fukki kuréel yu juróom yi par par koñ lañu ko dagg par gox mm-hmm. gox bu nekk lu ëpp ñetti téeméer wala ñeenti téeméer yi tëkk nañu fa kon ñu jël lenn ci ñu nga fa nekk jiital leen ñu ñu jiite kuréel ba ñooñu nag dañ cee war a am pasteur ndax nit ki liggéey ton ndegam mbirum àddina képp buñ la ci jiitalee ca ngay rey sa bopp ndax lañ la dénk mu tegu ci yoon rawatina mbir moo xam ne mbirum sëñ Tuubaa la mbirum lislaam la buñ la ko dénk dafa la war a bàyyi bàyyi sa yitte yëpp bàyyi sa soxla yëpp bu liggéey bi yow tamit nga jug liggéey ndax itam am na ci kuréel yoo xam ne yu bari ca Louga wala nekk ci ci wër Louga seeni xar ñëwul wala defuñ ci xar yi dugaluñ ci xaar affaire xar yi dara ñàkk ndax ñàkk xam rek la te ñu leen ko yóbbu mooy njiit yi leen jiite ñoo doxul bàyyi ji euh, leeraluñ leen mbir mi ñu muy demee wante bande bi fas nañ yéen bu soobee yàlla kuréel yi nekk ci biir dëkk ba yëpp bu soobee yàlla bu ñu demee fukk kuréel ak juróom kuréel bu ci nekk danaa wër bu bu laajee mu wut vidéo mhm. wut poste téléviseur yóbbaale ko fekk fii la réunion tegal leen bande ba ña xamoon gën a xam ña xamul woon gis mbir mi bu suba yàlla bu ñu ci àggatee bu ñu soññee daal daañu neex a soññ waaw jërëjëf sant nañ la bu baax gërëm nañ la ah wax dëgg yàlla wax bi rafet na lool tegu na ci yoon ah ni nga ko waxee ak faram-fàcce yi nga ci def yëpp mbooloo mi comme ñu ngi topp sa gannaaw sa ndigal rek la ñuy déglu na lépp loo xam ne lii wax nga ko ne sëñ papa ko delloo jëlee nga ci moom nangam loo ñu indil rek ñu fas yéene ànd ak yow ci ah sant nañ la nag bu baax di ñaan yàlla yàggal la fi ah nga yàgg jiite mbooloo mi ñu yàgg a topp sa gannaaw nga ñuy digal ñuy def ah nga ñuy tere ñuy bàyyi ah sëñ bi day fekkee muccul dama xam nag yow ah, noo gisee mbir mi ah. ak noo tudd waaw ah. li nga xar yi waa Louga indi xar yi xar yi ràññi ko na lool ak li ngeen ci xam ngeen waa Touba ci seen xalaat sëñ bi sant na ci lool gis nañu seen jëf yëpp wala ñu joxe si ñëpp tëj yi gis nañu li nga xam ne moom lañu ko def ak yi ñàndawuñu ak li ngeen fi indi loolu ñëpp sant nañ ci gën ana ñu ñaan ñu gën a ko gën ko mën baax gën a amoon bu baax waxtu ñu gën ko rek jërëjëf ah moom ngi ci la waaye nag maanaam wolof dafa wax ne dëgg yàlla daanaka ni koy mën a rek xam nga rëbb bi nga ci kër gi mënta daw ah mu romb ko fi jëm ba ca àll ba muy daax kéwal ba jam ko ci kër gi kon loola mel na ne am kilifa gi béy am kilifa moo tax hmm, te it waykat ba dafa wax ne am kilifa am na solo ku ko am am nga solo hmm. ku ko amul amoo solo hmm, ku wéeruwul yomba ba wax te it euh, mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloom jeewal mi ñëpp ñu ngi jéem a fas yéene wéeru ci yow ñu lay laaj nag ci laaj bi moo di euh, liggéey bi nga xam ne moom nga fas yéene jiitu muy jëlee Louga andi Touba ak wàññiku gi ngay wàññiku fas yene fekkiwaat mbooloo mi dinkani nga xamne ne <clears throat> nga wara duggal yoyo, ci bir ñaari wa et bien yooyu moom lañ lay laaj dal nga joxe na ci ay dinkani manam jele Louga bi andi Touba ak joge Touba delu Louga wara soñan soññaan mi lolu lu ci saxala Alhamdulillah, di ñaan Cheikh Saliou Mbacke itam yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak man ak tal jabootam gi topp ci gannaawam gépp itam yàlla dëppale seeni i xol jubale leen déggale leen ba ñoom ñëpp ñu tegu topp ci moom dox ndox yéen wi muy dox nga xam ne wii bu dox rek dox nga doxin boobu aw doxin mënta gën a jekk mhm. mën koo gën a gaaw yi mën koo gën a jëm fu baax itam ah, ibba mi daf ma cee noppal lool ndax léegi comme ni nga ko waxee léegi rek bu ma soxlaa loo xam ne dama koy bëgg a yónnee wala dara te bu ma war a waaye ko mbay jeewal mii mu daal di ñëw su ma woo ibba it ne ko nangam ak nangam yëg leen nangam ak nangam ak nangam toppatoo nangam ak nangam ak nangam moom itam niñ ko tasaaree loolu ci biir mbooloo mi kenn ku ne la nga war a def mu wala wax la ko dañuy daal di def loolu ba mu sotti ñu dikk ne ma toll na fii defee nii defee nii nen nii kon loolu ñoom bu ñu naan tey jii liggéeyum njàmbur liggéeyum Louga ca jamono yi sëñ Tuubaa lañ toppoon sëñ Tuubaa ba léegi waaye nii ñu àndandoo nii ñu boole seen bopp jëf jii ñuy jëf mosul a jooy nga jàmbur ñëw fii loolu dafa nekk loo xam ne lii rek mooy yoon wi ñuy dox jëm si. te sëriñ Saliou nii sëriñ Cheikh loo waxe wan léegi ne ab yar du caag yéen di kay dox di wax ak bind di joxe kay saaka def yëf yow ci sa bopp yaay mel melokaan boo xam ne bii ku la xool rek am lu mu roy ci yow am lu mel am lu mu bàyyi am lu mu jàpp. sëriñ Saliou fan yi ci gannaaw dañ ko siyaari mu ne ñaan ñaan yi ñaan ñaan gi ñuy ñaanal mbooloo bi ñaanu kenn mënu koo gën mënu koo gën a baax mënu koo gën a matit ndax mbooloo mi niñ toll ñëpp seen soxla yi ci seen biir ni mu toll yëpp moom la ñuy fës ci ñaan gi ñu leen di kenn ku ci nekk nag kon ñaan googu boo ca amee moo gën ngay beru di ñaan sa ñaanu bopp sa seen soxla si bopp rek mu delluwaat misaal ni ma ñu ñaanal mbooloo mi noppi nga ko du ñaanluwaat sa ñaanu bopp mu ne dafa mel ne ñu jiite la ak julli ba noppi nga wëlbati ko di julliwaat geneen julli sa julli boppati fee ci julli boo doon julli te loolu lépp ci làmmiñ ci làmmiñu boppam la jógee man ma déggee ko ci sama nopp bopp kenn doxul sama diggante moom nett li ma ko kon nag ci kaw loolu itam ngay xamee ne nag fépp fu mbooloo nekk dajaloo fa di liggéeyal Serigne Touba fab la ñuy indil Serigne Touba te boole ca ñëpp di ca soññi ñëpp di ca laaj ñëpp nga jàpp ne ma yow man li sama bopp yoon wi mën na maa àgg ci sëñ ba te duma ànd ak kenn ba tax àndoo ca mbooloo moomee yaa ngi mel ne yow itam koo ci julli mbooloo ma dem di julli sa julli bopp rek lu baax baax ak lu mu rafet rafet ak lu mu sell sell sell rek defoon ko ca biir mbooloo mooy gën moo ëpp tuyaaba moo gënal sëñ bi moo gën a sëñ bi itam ndax dara du ko ci defee leen dafay joxe waat rek ah. lépp dafay dafay joxe ba noppi fab yi fi boppam boole ci joxe ah, kon lim soxla ci taalibe ne ñoom ñëpp bokk nañ ci maase rek dara dootuñu dara dootuñu dese lu dul tiim suñuy xéewal waaye loolu yomb naa misaal ndax borom kër gu nekk waxtu añ noppee wala reer hmm. dañuy daal di woote ndax ñëpp ñu daje nañu hmm. ñu ne diw de des na ñu ne tegal ndab li kon buñu tegee ndab li du tax ñu ubbi ko dem nañ ko wooyi ñu wooyi ko mu dem buñ ko wëree ba mu ñëw ñu ne diw diw kat ma ko wooy woon di ko wulit ñu ne nañ ko nekk nga xam ne kon fii kenn gi manqué rek <laughs> liñ war a xéwloo day mel ne day am gàllankoor waaye bu ñu neen tabaaraka ñëpp ñëw nañ ñu daal ne bisimilah kon joxe ndigal ñu xéewlu ba tax na daanaka ay taalibe fu ñu moom fu ñu nekk dajaloo fa di kër kër yi di xëccoo di wut xéewal te mënuñu ko am rek ñoom seen bopp ñoo booleegul seen bopp ba nekk benn waaye waxtu boolee seen bopp ba nekk benn ki leen di dënale moom yor na lu leen dënale te doy na leen sëkk te kenn ku ne la nga bëgg nga ci biir ndab la doonte bëgg-bëgg yow wute na te mel ne wenn ñamit kenn ku ne la ngay tibb ci sa loxo bu duggee ci biir la nga moom diggante mbirum sëñ bi la ak euh, mayam ci boroomam ba tax na foofu ku ko mën a xam ko mën a xam waaye ku mënta xam itam mënoo koo xam waaye nga jéem koo gëmee noonu te xam ne noonu ñu la ko waxee dara du ci dañ noonu noonu noonu la nekkee mm-hmm. ab liggéey nag boo ca nekkee muy lu baax ah alxuraan waxoon na yéen gaa ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp sawara ak seen ak njaboot mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci hadiis ne ku gis ci yéen lu ñu sib lu bon lu ñaaw mm-hmm. na ko soppi ak loxoom su ko mënul na ko soppi ak làmmiñam su ko na ko bañ ci xolam loolu mooy gën jaadoye di ngëm la ngay def muy lu baax ñëpp cay bokk ñëpp cay dugg ñëpp cay nekk dëgg la liggéey bi yeex mm, na doxin wi waaye nañu rafet njort rek bu baax ndax kuréel yi téeméeri kuréel lañu bu ñu indee juróom fukki xarit juróom kon day mel ne genn wàll gi rek joxe genn wàll gi joxe ndax am na ci kuréel yi joxe ñaari xar kuréelu sant sëñ Touba joxe na ñaari xar kuréelu kër Moussa Kébé joxe na ñaari xar kon bu ñu indee ma loolu moo lay xamal daanaka genn wàll gi rek ñoo joxe kon lii genn wàll gi nga des te bokk nangoo bokk ba noppi itam nag proprement. li ci des ci ay kuréel yoo xam ne yi kon joxewu joxe bokk nañu di jëf te am luñ joxewul ñàkk a xam na rek waaye kenn gënu leen a bëgg lu baax ku bëgg lu baax nag ba dugg fu ñuy wute lu baax da góor góorgóorlu ba bu la bu la bu kenn raw bu la ca kenn ëppule am xarum tabaski bu ñu waxee ne ab dëkk xarum tabaski nañu ko wut yeew ko yéene ci xarum sëriñ tuubaa ren ba déwén bu buñ ko yeewee dana doon xar muñ man a gis dana doon xar muñ mën a wane te li wóor mooy mboolem kuréel yi ci bokk yépp ña jiite kuréel bu ñu taxawee ca dëkk ba ne kuréel bi day mënuñoo jënd xarum Sëriñ Tuubaa waaye ña ngi seet ci dëkk bi képp ku ko ci yàlla man loo nga a joxe xarum Sëriñ li ma mën a waat mooy dëkk bu ñu taxaw wax ko fa kuréel ba dana ko mën a jënd wala yaar doomu aat danga fa gis taalibe bu yëkkatim xar ne xar bi joxe naa ko xarum Sëriñ Tuubaa bu ko góor ñi deful jigéen ñi danañu ko def benn dëkk bu loolu mën a ñàkk la amul ci mboolem kuréel yi ne yi bokk nañu ci te itam loolu dafa nekk loo xam ne lii dafa am solo loolu ci dëkk lii ñu ñëw tey jii sëriñ bi di ko xoolal ko boppam wax ci lii mu ci wax békki lii mu ci def defal ñu trang yi muy defal boole ci li mu ci def ci biir ci baatin loolu dëkk ci dëkk ba bokk ci kuréel yi ñuy ñëw te sam xar bokk ci dara jaru ko te itam bokk ci ba noppi di jéem a taxaw ca kanam nag man loolu mooy dëkk nii nga xamante ne waa ci benn bi ñuy ñëw dañu ne kenn mënta fexe ba du ñoo ciy ëppum xar am na fi at moo xam ne gumba géwël ëpp na leenum xar waaye bañ ci jógee dañu ne loolu dootu am sancub jaaji ne moom loolu ba béréb boobu ëpp cim xar moom teg na ci loxoom te dootu kenn du ko mën a foqat ci kenn ku nekk ne ko bu déwénee danaa keppar ci sa baaraam teg fi sama loxo loolu mooy li nga xam ne lii mooy li am solo nekk na loo xam ne lii loolu damu na damu damu la loo xam ne lii kibiisu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ku ñu wax Abu Dujaana mas na koo jox jaasi mu dukkat dukkat dukkat bàkku mu daal di koy xool mu yàgg mu ne doxin wii day siwees na ko ci yeneen béréb waaye fu mel ne fii mu ko defee moom kenn sibu ko fi noonu yi taxaw jaasi yi taxaw xeej yi taxaw ngànnaay yépp taxaw kenn ku ne di xool sa koll borom noo ci dugalee jaasi wala xeej nga bi di wut ku la ñeme fekk la fi loolu mooy liggéey bi liggéey boobee nag mooy liggéey bii ñuy def léegi si booba jaay deret moo xewoon léegi nag xeex ak bakkan moo xew bakkan nag li mu gën a bëgg mooy alal nga foqat ci moom alal nag ne ko fii danaa ko jox Sëriñ Tuubaa nga xam ne mii dana ko def fi neex yàlla loolu lu metti bakkan la kan mën a am jàmbaaru def loola bakkan nag moom it moo mën a dukkat nag mën a bàkku bàkku yu mel noonu loolu nag mooy tax kenn ku nekk di wax ne man sama baa dëgg la ma leen di sant nañ ko def bu ñu yeeweem xar donte mbote la bu leen culob si ñebbe góor dana indi culob ñebbe jigéen dana ko indi ñuy xont xar mi ko ko indi ko am saako repasse danga ko indi ki yor itam xar mi nee nañ waxuma bale sax waxum weesu nañ ko léegi tame la ñuy tamee gédd ba nga xam ne fa la yeew xawam sërum sëriñ Touba mi mbirum sëriñ Touba dafa nekk loo xam ne lii foog loo ca foog ak noo ko jàppee ak noo ko defee rek mu faje noo sa aajo loolu yi nag moom ci la taalibe yi rawantee taalibe yi da ngay gis ñoo xam ne ñii ñoom fi mu ne bu ñu duggoon tey jii ba dugg fii ci kër gi ñu ne sëñ Saliou ngi ci kër gi rek seen aajo faju na ci loolu soxlaatuñu ci leneen gis koo xam ne kii bu dikkoon ba dikk ay loxo sëñ bi jàpp ci baaraamam ñaanal ko taf li ko mu a wër bati bu jéem a rangi ne doy loowul gu jëkk ga gi muy amaat gi dikkee du ko jëriñ dara ndax bu jëkk ga doy loowu dafa am koo xam ne kii dafa ma a jàpp am picc picc mi ne ko waaw loo may bëgg a doyee mu ne ko xanaa fas la yéenee rey lekk te lekk la mu ne ko waaye man rëyuma duufuma du ma la jëriñ dara tee nga ma bàyyi ma xamal la ñetti xam-xam yoo xam ne yi su ma la ko xamalee mooy gën ci man nga doon ma rey mu ne ko ay loolu de boo ko den def moo may gënal mu ne ko benn bi danaa la ko wax fekk nga bàyyi ma ba ma dal ci kaw doj yi bi ci des bu ma naawee ba daj ci kaw garab yi laa la koy wax mu ne ko waaw waxal benn bi bi ma bi nga xam ne danga koy wax ma bàyyi la mu ne ko bool déggati dara dara dara dara loo xam ne ni jaaduwul yënuwul maanaa bëggam ko mu bàyyi ko mu jóge ci loxoom naaw dal ci kaw do aw montagne ne ko yow yaa ñàkk sens dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te ñàkk muur soo ma rendi woon da nga fekk nangami julay jamaa ci sama biir jox bi yi ma wan noonu soo ma rendi woon da nga fekk loolu ci sama biir jox bi waaye daal di màttu saasa kanam réccu lu mu ko doon bàyyee mu daal di naaw daal ci kaw mu ne ko waaw indi bu ñetteel bi mu ne ko jërul jërul ma dina ko jox ndax fàtte nga bu njëkk ba ndax nee naa loolu bu déggati lu jaaduwul ba gëm ko te yow xam nga ne maa ak samay dunq ak sama deret ak sama yàpp ak sama yax yëpp matuñu matuñu ab ab ab sax bu ma ne ne nangami mi lay gramme a ngi ci sama biir jox bi nga gëm ko kon jërul ma di la wax boobu ñetteel bi ndax li ma la jëkkoon a sax xamoo ko jàppoo ko gëmoo ko loolu yi nag moo bari lool ci doomu aadama yi da wax ak ñoom mbir di wax ak ñoom mbir ba ne loolu jëratu la wax ndax xam nañu ko doo ba ba ba jëlatoo ko wax nga dem ñu déggee ko fenn dikk di ko yéem naan li ma dégg te ak li ñu wax tey ak nangam ak nangam te wax nga leen ko téeméeri yoon wala lu ko te nga xam ne kon la nga leen doon wax lépp dégguñu ko woon xamuñu ko woon jàpp ñu ci woon dara loolu nag mooy li nga xam ne lii moo tax ku ciy liggéey ci liggéey bi doo daaj doo tal doo bàyyi doo dellu gannaaw waxtu wu nekk bul na it waxoon naa ko bul na it déggoon nañu ko nañuy soññi rek mboolem kuréel yi ci bokk yépp insha allah ñu dem a dem ba bu nekk da nga indi ndax kuréel bu ne dañoo wutal gone yu jigéen yi bureau wutal mag ñu jigéen ñi bureau wutal mag gone yu góor yi bureau wutal mag ñu góor yi bureau ñooñu ñu ko defee nag bu ci nekk di wut seenum xarum bopp te du tee benn baat rek a fay mooy tere ñëpp di bàyyi loolu nag mooy liñ ci soxla ci mbirum liggéeyal Sëriñ Tuubaa lu pàcc yi bari ko déglu bu fekkee jàppe nañu noonu doxee noonu rek insha allahu li ñu ci nisar lépp dana dana dana baax te liggéey bi buñ ko seenalee ngir yàlla ak yonent bi nag Serigne Touba moo mboolem ku bokk ci Serigne Touba da nga dem da nga ci dugg te da nga ciy jëf te li nga ciy jëf da ci ànd ak xol bu sedd te dina incha allahu nañu rafet jot ci ne ñëpp dana ci dugg buñ jàpp mukk ne kenn naru cee dugg wala kenn dàcc ci moom wala xadd ci moom wala ñàkk yaakaar ci moom buñ ko def mukk nañ fas yéene rek woo ñëpp te ànd ak ñëpp bu ñëw ñu jàppale la baax yaatal la ci biir liggéey bi dana incha allahu dana rafet waaw yàbbatul Jóob la ak ak ak Sine Diang. waaye bu naan nu yéen ci waa Jéewal ñu ngeen jëm fekk ma ne naa jëm kër Seck muy ko sant ñaan ko sawum xar nii. waaw ah, waaw waay waay kay ah, waaw waaw nañ nañ dem topp tooji rek moom leer. président waay boobu def naa ñëw nañ jéego dëkk Kër Moussa Kër Moussa. Kër Moussa Kébé ah Kër Moussa Kébé waaw. Kër ngaa ah. mën ngaa taxaw bañ kii bañ ban kuréel la ban kuréel la. Sinjang. ah Sinjang ñaata xar ngeen andi yéen. ñaari xar lañ andi. ñaari xar. bu yàbbutee rek seen bopp. ñoom ñaari xar. ak ñaar yàbbutee. muy ñetti xar. waaw bu ñu ko demee nag ñoom ñoom ah. par ñaar a tàmbali ma demee ko. ma nga fële ca bunt kër sëñ bi dama laajte ma be ma fekk fa kii ma ne ma ñëw ngeen gisoo ma ne ma ne it taxaw ma dem seeti kër kër bu mag ba xam seen côté. waaw bisimilah nañ dem taxar yi mën nga taxaw comme si xar mi génn. Ah, dem leen rek dinaa ko jël. waa ñëwal nga jëlaale tur

काय का बरोबर Yeah, yeah, ja, Yeah, but you ja, ja, ja, te kanam ko jëlee keneen ci la ci teg. Thank you. shine. dem boo ci añ bu ma la du moom lay yóbbu nii. añ baa ngi nii añ baa ngi nii tamit moom lay yóbbu nii. waaw ñëw nañu si seen. léegi moom tamit kay baax a. parce que am ñoo xam dañuy ñu ñu àggal ma dañuy gaawal te dañoo bañ a guddee. xam nga sëñ bi sëñ bi jógee daal ca daal di jaaj dañ caa am ñu ñu ñu ñu ñu. waaw waaw man de ñëw ñëpp nee na leen nit ñi man ñii ma koy wax wax ba nga xam ma ko tuddee sama bopp dem ci béréb nag ngay laa ko tuddee sëñ bi ba noppi ñeneen jógee foo dégg que mu war a dem xamal ne ñu fi baal la dem ci béréb wax ba noppi foo dégg ñu fi baal la doomu doomu ñu ngi xamay ma lu salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam. Euh, gannaaw bu ñu la nuyoo di la siyaare ah di la xamal ne it mi nga xam ne yàlla def na ñoo ñëw ci topp ci gannaaw sëriñ Papa Codé Lo ñëw tey ji siyaare si andi euh, seen barkeelu ci tabaski bi ah ñu la doon laaj nag maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a féete ci béréb bi ah nan ngeen di mën a ñi nga xam ne ñoom la ñuy wane bande bi ñu seetaan ko daal te nga wax na sa tur ak euh, ni nga demee ci biir kër gi. ne suñu mor am laa tudd doon dongo bu nekk ci kër gi fa séenee liggéeyal Serigne Touba liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba nag danañ ci mag yàlla baax sa sal bu ko dara dog bu ko dara yàqe ñoo ngi ñaan itam Serigne Saliou yàgg fi te nu yàgg ci ginnaawam ànd ànd ak moom liggéeyal Serigne Touba bi ba nu bëgg Serigne Touba dimbali ko ci te dimbali nu ci suñu liggéey sama borom barkeel ko te nangul na ko te dencal na ko fa ma yàq mënta yegg hmm. te itam sëriñ sëriñ Saliou Mbacke mii nga xam ne moom la ñu nekkal nu làq ngërëmam te tey ak ëllëg fii ak fa nu jëm hmm. nga xam ne dañu fi ñëw hmm. di fi dénkaani seen ñàq ngir ëllëg danay ñaan seen ñàq yàlla bu ko dara dog ba mu dugg ca maa nga seen sëriñ ba nga xam ne moom la ko yàlla ak rasulullahi jox ba dara mënu koo yàq bay daay la yàlla bu ko dara dog yàlla bu ko dara yàq Mm-hmm. yal na ko Serigne Touba nangu te yeggale ko te dencal leen ko fu mu bëgg mm-hmm. ba saa taxaw ñu fayee leen ko mm-hmm. barke Serigne Sall jërë ngeen jëf jërëjëf sant nañ leen baax kontaan nañ loolu wax bi am na solo lool ngi lay sant di la gërëm ñaan yàlla nangul nu liggéey bi ñu ñëpp ci barke Serigne Touba bismillah xanaa bi yàlla jël na ko. ñu ñëw yaakaaraan. doo ko ci mbaal bi bon. tey mu dubaal wàcc. waaw wàcc nañu waaw waaw. waaw kay kon wax na ko. loolu xaalis yokkaat mën na quelques mètres. waaw ci kaw yaakaar nañ ci rànq di nga gën a gudd jëm kaw. luñ wax du sept mètres wala. ah man na ko léegi seen bi la may góor tuuti boo demoon ba àgg ca. waaw sept mètres la ñu wax de.